pointé du doigt. Les acteurs dénoncent ces multiples de la dépollution de projet de plus de 70 milliards. Pendant ce temps, Diembering, c'est dans le département d'Oussouye. La zone est fortement menacée par l'avancée de la mer et de sable sur le littoral se poursuit. L'arrêté interdisant le prélèvement est sans effet. Les désastre écologique et traduire en justice les contrevenants. Au sommaire également, la Covid-19 et ses impacts sur l'économie sénégalaise, difficultés liées à la trésorerie, des problèmes administratifs liés au report d'échéances.

de tous ces titres. ni diir Ndakaaru fekk ñu ne weesu nañu leen Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM. fu ngeen mën a ne ci réew meeg bitim réew yëpp mën ngeen ñoo déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax ndax yéen a ngi a jàpp li nga xam ne moo di Sud Matin asalaamaaleykum El Maodo Faye. maaleykum salaam soxna Maria. ñu ngi lay ziar bu baax a baax ci suba si lan moo nar gën a fës dina ci bokk xam naa ne fëg la nga xam ne moo di beeda aan ba euh, li nga xam ne moo di pollution bi. Maodo benn ànd lu ñu koy waxee ci olof. <laughs> voilà jërëjëf soxna si ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bokk yi itam noo ngi leen di. sant bu baax a baax di leen gërëm doore rek xabaar yi fële ca aan ak itam ban beeg raj-raj la boog poso poso yi nga xamee ne tam ah, tax na béréb yooyu nga xam ne moo féeteeg boori tefes googale nekk ci ay tolof tolof yoo xam ni daal ñi nga xam ne ñoo di mairie ba nekk foofu sax ñoom nee ñu ah, bale gën koy bale ak defaraat fi mu toll nii des na ko daal di tàmbali ndax itam ah, nekk na béréb boo xam ne bi daal dese naa xay lool ba tax na tamit foofu ci aan lu mu gàtt-gàtt li nga xam ne moo ko a a jàppandal ci ay koppar bu mu tuuti tuuti toll na ci juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent dañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi ci jamono yi sax fële ci Jàmbereng foofu moom euh, ca département bu Oussouye géej gi dandu gi muy dandu di dem ci biir askan weeg yu demee noonu ci kër yi tax na rek tamit daal ay kilifa yu nekk ci gox yooyu la jël ci ay matuwaay ndax itam loolee gas gi ni gas suuf si ak itam tefes gi ñoom sax nee ñu képp ku mën a doon koo xam ne kii dogal yooyu la mujj nga euh, ba di ko di ko salfaañe buur dana daal di dal ci sa kaw daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi bokk ngeen baal ñu fo ba léegi itam ci wàllu Covid 19 bi euh, foofu dafa nekk euh, daal ay jafe-jafe yoo xam ne indi na ko ci wàllu koom ci wàllu tamit koppar yi nga xam ne dañ koy dajale di ko leble ko joxe di ci di tamit ay njariñ di ci am ay microfinance ak yu demee noonu loolu lépp daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi ndax ay tolof tolof la jël moom tawat jooju nga xam ne moom la ñu duppee euh, Covid 19 ba tey itam ci li aju fële ca Kambal ca am na fa gone goo xam ne gii daanaka luy jege ñaar fukki at yàlla la am tàkk gi wala boog tamit dënd bi moo dal ci kawam loolu daañu ci dikk léegi ci biir xabaar ci incha allah yeneen i xabaar. jërëjëf El Hadj Maodo Faye balaa ngay dem doo wax bee da ànd duñ koy waxee. firi ko. daf maa rek ci de olof bi xóot na de. waaw parce que da nga doon réewoon nag. <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jox dig daje fileeg ci kanam incha ngir yaatal gi ak faram fàcce gi. Sud FM seen rajo. Les temps changent et le monde bouge. Sud FM en mode majeur. l'inséparable de l'info. Les matins sur Sud FM Sen Radio avec la voix bonheur de Siste Maria. Qui... Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. une nouvelle vision des transports. Sénécartour vous offre la revue des titres à la une des quotidiens. Ndeye Mariam Ndiaye nous a rejoint en studio. Bonjour Ndeye Mariam. Bonjour Maria. On est le juillet Quels sont les titres qui seront développés? Euh, quels sont les titres à la une des journaux de ce matin? Et comme on dit souvent à tout seigneur, tout honneur, on démarre avec Sud Quotidien. Sud Quotidien revient aujourd'hui sur la modification du règlement intérieur. Si c'est l'eau euh, euh, nous indique que Cissé Lo s'achemine vers une deuxième déchéance de son mandat parlementaire. À la une du journal Les Échos, nos confrères nous parlent aussi du chef de l'État Macky Sall qui sort le sabre. Cissé Lo exclu de l'APR, l'Assemblée le renie. Le groupe Benno Bokk Yakaar va le virer. À la une du journal LAS, viré de l'APR sous le coup euh, de deux plaintes, Cissé Lo entame sa descente aux enfers. Nos confrères de Vox Populi nous parlent aussi euh, de ce peloton de la PR qui fusille El Pistolero et à la une du journal critique fin de règne aux crises de croissance la creuse sa propre tombe à la une du journal Tribune nos confrères nous parlent aussi de Cissé Lo défenestré des rangs de l'APR tout sur l'exclusion de Moustapha Cissé et l'on reparle de la progression de la pandémie à Covid-19 nos confrères du journal Le Quotidien nous parlent de cette forte fièvre à Dakar Ouest plus de cas entre Yoff Ngor Maradi et Wakam. À la une du journal Le Soleil, modification de la loi de finances initiale, le budget révisé arrêté à 3144 milliards de francs euh, CFA. À la une du journal L'Info, nos confrères sont en tenue avec Aboubakry Sow, euh, c'est le directeur général de la SAED et il déclare que nous tablons euh, sur tonnes de paddy. Terminons par nos confrères de Libération qui nous parlent de ce trafic de drogue dure à la gueule tapée. Dr Fall vendait de la cocaïne dans son cabinet Dakar. Sénécartour di société bi ñu gën ràññee ci wàllu location oto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement Sénécartour gis-gis bu bees. ci wàllu dem beek dikk bi. Sénécar Tour moo leen di may. li gën a fës ci këru yéenekaay yi. ngeen ñuy dégloo ca ndax géej foofu ci 93 point 2 Ndeye Mariam Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Maria. ajaratu li nga xam ne rek euh, moo fës tey ci euh, xëtu yéenekaay yi lay defe naa ne dañuy tàmbali rek ni ko wolof di waxee béy ci say oom noonu la. béy <laughs> ci say oom wala béy ci say ta say weewu tànk. kon béy ci say weewu tànk Ndeye Mariam ngi noonu dañuy tàmbali ak Sud Quotidien. si Quotidien tey jii di ñëwaat ci mbirum Cissé Lo moom mi nga xam ne nag démb daal dinañu koy dàq ci euh, parti bi di APR suñu naatangooy duñu euh, xamal ne suñu maytuwulee it dina daal di ñàkk mandat ga mu am euh, fële nga xam ne nag moom mooy ci assemblée nationale ndaxte foofu nag ñii nga xam ne ñoom ñoo farandoo ak moom bokk nag ci majorité bi ñoom ñu ngay xool daal ci yan yoon lañu war a mën a jaar ngir daal di ko fay jëlee les échos kon di ñëwaat ba léegi ci Moustapha Cissé Lo dàq ca APR waa assemblée nationale ànduñu moom te it suñu maytuwulee dinañu ko génne ci groupe parlementaire Eh Benno Bokk Yaakaar laas yéeni kaay nañu kon kii di Moustapha Cissé Lo moom da ay jafe-jafeem fu mu nekk nii eh, tàmbali na vox populi di ñëwaat sax ci commission bi nga xam ne ñoom ñoo daal di eh, dajale démb waxtaan ba daal di koy dàq ñu gis ne nag ci commission boobu am na ku ci mel ni Abdoulaye Badji bu ci bokk Oumar Gueye Abdoulaye Abdou Mbow Awa Gueye ak tamit Abdoulaye Daouda Diallo critique nañu kon dafa mel ni ni ci partie bi di APR am na daal ay jafe-jafe yu tar yoo xam ne dañ ko cee nemmeeku la di ñëwaat ci kii di Cissé Lo di ñu xamal sax naka la ñu def ba daal di koy jëlee ci parti bi di APR le quotidien tey jii ci mbas bi di Covid 19 na daal di xëyee ginnaaw ba ñu nemmeekoo ne fii ci biir Dakar rawatina nag ci gox yi nekk ca Yoff Ngor Almadi ak Wakam ñoom moo ëpp nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am mbas bi di Covid 19 le soleil tey jii di ñëwaat nag ci budget euh, bi nga xam ne daal dinañu ko daal di voté budget boo xam ne nag am na yenn ci ay yeesalaat yoo xam ne dinañ ko ci nemmeeku l'info tey ji daal di seex waxtaan ak ki jiite sayet di Aboubacry Sow moom nag ma ngay ñëwaat nag ci wàllu euh, mbéy mi rawatina nag ci wàllu euh, ceeb bi ak tamit seen mbëbëp seen mbërëb ci atum euh, ren jeexale ko nag ak libération moom mi ngi ñëwaat ci mbir bu doy waar boo xam ne moom moo xewee ca Gueule Tapée kenn ko xam ne day xam ne daal ne moom dentiste la dafa yore ab cabinet dentaire nekkite yoo foofu la dafa dafa doon nekk di jaay drogue ci biir cabinetam googu. Ndeye jox dig daje fi ci kanam. incha allah incha fekk nga gën a li nga xam ne moo di yéene kaay et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque non-banque qui de l'économie. Sudeco qui nous parle ce matin des pluies à Tambacounda et qui ont détruit hectares de bananes. Sudeco, c'est avec Abdoulaye Mawane. Bonjour et bienvenue. La souscription à une assurance agricole, telle est la principale de Sadali. Il est directeur régional du développement rural de Tambacounda. Recommandation à l'endroit des producteurs de bananes qui, à cause des intempéries, ont perdu près de 335 millions de francs CFA. Il faut noter que, donc après constat des services techniques, nous sommes qui ont été attaqués violemment par les vents, donc déracinés. Donc il y a eu des pertes énormes qui tournent autour de 335 millions. Bon, néanmoins, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'au niveau de tout marche. Et on avait depuis producteurs de bananes d'aller vers euh, l'assurance agricole. Donc euh, nous avons fait euh, donc pour voir comment les aider à Du moment, des fois, il y a des périmètres où il y a des inondations, des fois, il y a des périmètres où, avec les aléas climatiques, nous avons des vents violents. Donc, pour ne pas qu'il y ait des pertes économiques très énormes, nous avons demandé à ces producteurs depuis des années, nous leur demandons, nous leur supplions d'aller vers l'assurance agricole. C'est euh, vraiment, parce que une activité économique phare de la région de Tambacounda. C'était Sada Ly, le directeur régional du développement rural de Tambacounda. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La b Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la b la banque de Montrichange, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM, Sud FM Sen Radio. Toujours dans ce contexte de coronavirus, Info Santé s'intéresse ce matin de l'impact que ça sur le programme élargi de vaccination. Ndeye Khady Diop reçoit le docteur Ousseynou Badiane.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 Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé reçoit docteur Ousseynou Badiane. Bonjour. Et euh, euh, de vaccination PEV. Docteur, quel est la Covid-19 euh, sur le PEV? Vous savez que la Covid-19 a impacté tout le système sanitaire de manière générale et tous les programmes, mais aussi spécifiquement le programme élargi de vaccination. Donc cet impact s'est traduit par une réduction de la fréquentation des services de vaccination et une baisse importante du nombre par mois. Et cette baisse est liée à la peur qu'ont les populations d'attraper le Covid au niveau des structures sanitaires, mais aussi liée un peu aux mesures restrictives qui ont été prises au début de la pandémie, donc notamment le semi-confinement. Donc les gens croyaient qu'en disant restez chez vous, ils devaient pas aller faire vacciner les enfants. Il y a aussi des rumeurs qui ont circulé sur les vaccins et la vaccination, qui ont décroisé certains parents, mais aussi il y a la surcharge de travail liée de lutte contre la COVID-19. Alors, avez-vous de mars, on évalue le pour cent par mois. Donc, sur le nombre d'enfants attendus, on pour cent de la cible, ce qui Mais la plus grosse perte, c'est par rapport à la vaccination contre l'HPV, qui était une la fermeture des classes. Donc, a plus pratiquement de vaccination et c'est pour cent de la cible vaccins vous avez des chiffres. pour les vaccins c'est entre et de de perte. le cumul le en termes de nombre d'enfants non vaccinés tourne autour de mille enfants par mois donc euh, là on est pratiquement à vingt mille enfants non vaccinés du fait du Covid. docteur Ousseynou Badiane je vous remercie.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 les matins sur Sud FM Radio avec la voix bonheur de Siste Maria qui vous dit l'info, c'est ici. Les temps changent et le monde bouge.

Évidemment, Maria, bonjour euh, et rebonjour d'ailleurs, euh, rebonjour également à toutes et à tous. Le sommaire que nous démarrons avec cette baie de Hann qui souffre toujours des effets de la pollution. La baie de Hann qui souffre toujours des effets de la pollution liée aux et des euh, euh, déchets solides. Le port de Dakar et l'absence de système de collecte des ordures pointés du doigt. Les acteurs dénoncent ces multiples agressions. La municipalité annonce le démarrage de la pollution, euh, de la dépollution de la Bédane en projet de plus de 70 milliards. Pendant ce temps, Djembering, c'est dans le La zone cette situation. La destruction des dunes de sable sur le littoral se poursuit. L'arrêté interdisant le prélèvement est sans effet. sont appelées à stopper et traduire les contrevenants. Au sommaire également, la Covid-19 et ses impacts sur l'économie sénégalaise, difficultés à la trésorerie, des problèmes administratifs liés au report d'échéance. Le secteur de la microfinance subit les contre-coups de la crise sanitaire. Les acteurs réfléchissent sur la relance. L'actualité, c'est aussi ce drame survenu à Koumbal. C'est à Kaolack, un homme âgé d'une vingtaine d'années a été tué hier par la foudre. Et puis enfin, sur l'international au Niger, toujours aucune nouvelle des neuf humanitaires enlevés le 24 juin dernier entre le Burkina Faso et le Mali. Tels sont les titres qui Babacar Samb. Qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la baie de Hann qui souffre toujours des effets de la pollution liée aux eaux usées et des déchets solides. Une vaste opération de nettoyage. Les volontaires de l'environnement s'engagent. Le port de Dakar et l'absence de système de collecte des ordures pointés du doigt.

La de Anne a perdu son lustre d'antan. Sa pollution causée par les eaux usées et des déchets émanant d'autres localités renseigne Bakesek, l'initiateur du Cleaning Day. Les eaux sont dégradées à cause du nombre de mètres d'eau usée qu'on reçoit journalièrement, mais nous avons énormément de déchets. il faut un programme qui complète ce programme de gestion des eaux usées par un programme de gestion des déchets. Un degré au niveau du canal 6 de la pollution aux

protection de la baie de Hann avec le canal 5 et ses neuf émissaires. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime venu prêter main forte et sur les industries de pêche pollueuses. Ce dernier pense global à ministre de la Pêche et de l'économie maritime. C'est un ensemble, c'est notre côte qu'il faut préserver. notre côte, préserver notre mer et à l'avantage des acteurs de la mer. Il va falloir une stratégie d'ensemble, une collaboration de tous les acteurs pour préserver l'essentiel. On la dans un environnement marin de cette sorte. Le maintenir, c'est menacer l'avenir de l'activité de ces acteurs-là. Donc tout le monde est concerné. Le démarrage des travaux de la dépollution de la baie de Anne est à plusieurs reprises. L'adjoint au annonce le début des travaux en mi-août. Matar Diaw de renchérir pour indiquer que le projet va également régler le problème des pollueurs-payeurs. Le démarrage est imminent. Toutes les industries qui mélange. Donc aujourd'hui, je pense bien que le projet va régler les problèmes. Et là, je Moussa Kiam, pour la radio Sud FM.

et on peut aussi viser le code de l'assainissement, le code de l'hygiène, le code de l'eau et le code sur le domaine public maritime contenu dans le code de la marine marine marchande qui gère le littoral et nous avons beaucoup de problèmes dans le littoral. Les gens avancent, occupent le littoral et les textes sont très clairs dans ce dans ce pays. Le littoral appartient à tout le monde. Il n'est pas question que des nantis parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils peuvent investir, empêchent le bas peuple de voir la mer et de l'user. Habiter en bordure de la mer et ne pas pouvoir se baigner, c'est de la violence qu'on exerce sur nous-mêmes. On est prêt à accompagner l'État pour l'adoption du code sur le littoral, mais surtout pour des mesures de sauvegarde du littoral sénégalais, que ce soit à Mboro, que soit à, à la Corniche Est, que ce soit à Anne, que ou l'abattage des, des révolte tout le monde. Nous avons intérêt que cette conscience environnementale soit chez nos enfants, que cette même conscience environnementale soit dans le bureau du président de la République. C'est ce qui va préserver notre pays, qui est vulnérable à l'avancée du désert, qui est vulnérable à l'avancée la mer, qui est vulnérable déforestation. En tant que président du RENOP, qui est une organisation nationale de défense pour l'environnement, nous avons tous ces gens avec nous et opérateur économique, que ce d'agresser avec impunité l'environnement. Nous ferons face et nous serons debout. En tout cas, pendant ce temps, la destruction des dunes de sable sur le littoral de Djembering, c'est dans le département d'Oussouye, euh, se poursuit malgré l'arrêté interdisant les prélèvements dans cette zone fortement menacée par l'avancée de la mer. Ce phénomène inquiète l'association Urok euh, Jouad qui euh, regroupe les fils de Djembering. Le président invite les autorités à stopper ce désastre économique, euh, écologique et à traduire en justice les contrevenants. Abdoulaye Ndiaye président de l'association Rock Joat au micro de Ben Michel Kanfoudi. Nous avons noté ces jours passés une pratique très dangereuse d'extraction de dunes de sable qui est en train de se passer à Diembarin. Il y a de cela aussi deux à trois mois, nous avions constaté les mêmes faits. En tant qu'association Rock Joat, nous nous sommes battus et nous avons à ce moment saisi les autorités, à savoir monsieur le gouverneur, qui a enfin pris la sage décision de fermer définitivement la carrière Aujourd'hui, je vous dis que les mêmes personnes sont revenues à la charge, mais cette fois-ci, ils sont allés encore beaucoup plus loin, à 200 mètres de la plage, pour extraire du sable. Alerte et je saisis par la même occasion toutes les autorités assermentées. Si une carrière doit être ouverte, c'est avec le consentement de la population et de sa société civile. Nous, en tant qu'association, nous nous sommes farouchement opposé à toute extraction de dune de sable qui n'entre pas dans le cadre de l'intérêt de Diembéring. Aujourd'hui, les mêmes pratiques continuent et nous ne demandons même pas la fermeture, mais nous demandons aussi que ces acteurs soient traduits dans les instances juridiques pour qu'ils se rendent compte. Parce que c'est un acte dangereux qui guette notre population. On a crié avec le phénomène de la région côtière que nous sommes menacés. des gens nous viennent encore pour leurs intérêts crypto-personnels sans se soucier de la, du bien-être de la population, faire une extraction de dunes de sable. Nous disons non à cette extraction et nous voulons que ça s'arrête immédiatement. Sud FM Ziguinchor il est 6h54 minutes situation difficile des personnes en situation de handicap dans la région sud face la problématique de la mise en de la loi d'orientation sociale ces personnes en situation de handicap euh, près de 50 000 ans dans la région alerte décline les exigences et lance un Elles ne cessent de crier leur triste sort, ces personnes vivant avec handicap dans la région qui trouvent leur participation aux différentes activités de la vie très limitée aujourd'hui. La faute aux difficultés liées à la mise en application de la loi d'orientation sociale, loi qui a d'ailleurs fait l'objet d'une évaluation par ces personnes en situation de handicap regroupées autour de l'Union régionale des organisations des personnes handicapées. La situation reste aujourd'hui plus que difficile pour ces personnes en situation de handicap. président fait le triste constat. Dans la région de Ziguinchor, nous constatons qu'en dépit des efforts qui ont été faits, les personnes handicapées restent en marge des programmes ordinaires de développement. La mobilité, l'appareillage, l'accès aux soins de santé L'éducation, la formation, l'emploi et la carte d'égalité des chances restent de grands défis pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Tous ces aspects que nous venons de citer sont pris en compte par la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, mais le respect et l'application constituent un grand problème. Face à la problématique de la mise en œuvre de cette loi pourtant promulguée il y a dix ans, ces le respect de cette mais sur fond d'interpellation. Nous pouvons constater que la mise en application de la loi d'orientation sociale présente encore beaucoup d'insuffisances et de lacunes. Il faut donc que l'État, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion, des organisations de personnes handicapées, vous la presse, les personnes ressources se mobilisent pour le respect de cette loi. Des personnes en situation de handicap dans la région qui plaident aujourd'hui plus pour une autonomie que pour une assistance. L'autonomie des personnes handicapées est aujourd'hui notre objectif principal au détriment d'une assistance qui finit par affecter la dignité humaine. Ziguinchor, FM. Ignace Dey, parlons de la Covid-19 et ses impacts sur l'économie sénégalaise, difficultés liées à la trésorerie, des problèmes administratifs liés au report d'échéance, de soucis que de la microfinance traverse en cette période de pandémie. Les sphères ministérielles de Diamniadio ont abrité hier lundi une rencontre d'échange et de partage sur les stratégies de relance du secteur de la microfinance qui contribue à hauteur de 30% le PIB. Bara Yane Thiam ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire avec Denisia Sambou. Le secteur de la microfinance contribue à hauteur de 30% dans le pays. C'est un secteur qui est non négligeable. Et si nous voulons réussir le pari de la relance également, il faut que nous puissions euh, sécuriser le mécanisme de la microfinance qui se fait à travers les institutions de microfinance. C'est pourquoi je voudrais remercier l'ensemble des directeurs généraux chef de l'État qui demandait à tous les secteurs euh, de faire dans Et s'il faut le le Président de la République, la première ordonnance qu'il a prise dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, c'était une ordonnance qui avait trait à la sécurisation de l'emploi. Aujourd'hui, c'est un secteur qui s'est battu pour conserver tous ses emplois, malgré les différentes pertes sur ressources que le secteur a subies. Parce que nous avons, parmi les mesures de contingence, nous avions demandé un report ce report d'échéance également a contribué à augmenter le déficit, notamment en, en termes de ressources. Et donc, l'État avait mis des mécanismes, vous l'avez rappelé, c'est la contribution de la résilience euh, pour le secteur de la microfinance, mais c'est également un mécanisme de garantie de 5 milliards qui a été mis à la disposition du système financier décentralisé. Cependant, les, les difficultés demeurent, donc nous les avons examinées ensemble et nous avons mis en place un comité technique qui va étudier cela en profondeur sur la base du document même d'orientation de l'APSFD et nous verrons quelles sont les mesures qu'il nous faut arrêter ensemble pour que nous puissions relever le défi de la relance. Ça va à la mise à disposition de ressources financières conséquentes, mais c'est également d'autres préoccupations que nous avons au niveau du ministère et que nous verrons comment mettre tout cela ensemble, mais de sorte que le secteur de la microfinance puisse également euh, répondre aux attentes, notamment pour ses bénéficiaires quand même, 3 500 de Sénégalais, ça dans l'économie nationale. Sud International. Un seul point et c'est au Niger. Le, les neuf humanitaires enlevés le 24 juin à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali sont toujours introuvables. Mercredi dernier, les autorités nigériennes euh, locales ainsi que l'ONG pour laquelle ils travaillent avaient pourtant annoncé leur libération. Depuis, nouvelle. Ils finalement toujours portés disparus. Retenez que c'est le premier enlèvement humanitaire. Euh, d'humanitaire dans cette euh, région au cœur des trois frontières. Maria, c'est la fin de cette édition d'information. Merci Babacar Samb, on te retrouve euh, un peu plus tard pour la seconde édition.

l'inséparable de l'info. Les matins sur Sud FM Sen Radio avec la voix bonheur de Siste Maria qui vous dit l'info, c'est ici. Sud FM Sen Radio. juróom-ñaari waxtu euh, fi nga xam ne moo di Sud FM seen rajo waxoon naa leen ko sànq yéen a ngi ñuy déglu ca diwaanu Samba Gueye kër Samba Gueye ak Sirmang foofu ca siin Saloum salaamaaleykum El Hadj Maodo. maaleykum salaam euh, soxna Maria. xibaar yi ci yaatal defe naa ne ñu ko tàmbalee ak li nga xam ne moo di euh, foofu ca Baie de ak pollution ba fa nekk. waaw ndax xam nga poso poso yeeg ban beeg raj raj loo beeg poxot yi ci nekk itam ba tax na fi nu toll nii taq na ripp dand itam ci tefes googule ba daal askan wi nga xam ne ñoo nekk foofu ak kilifa yi fokk rek yu takku ngir itam mën a daal di saafara mbir yooyu ba euh, na ci yenn béréb it yoo xam ne daanaka suuf si fële ci Jàmbereng ca département bu Oussouye yokk i xabaar El Hadji Maodo lañu di bàyyi ndil ngir yaatal geek faram fàcc gi soxna si kon fi saa si ni nga ko waxee léegi noonu la ñuy daal di suuboo dem ba aan ndax béréb boobule euh, ci tefes gi benn taq na itamit dand na ndax daal ban bi ak mbalit meeg yooyu itam ak ndox mi rek euh, daal di nekk daal ci ak i poso poso yoo xam ni tar na lool ba tax na tam ñi ngi def nag daal di seet nu ñuy defee daal ba laabal ko maanaam daal raxas ko ba mu set wecci ak itamit rek euh, ndax port Dakar bi fi nu toll nii ak gox yooyu nga xam tam daf ko féet itam ndox mi yàqu gi muy yàqu askan wa nag ak kilifa yi nga xamee ne ñoom la ñu dénk gox boobale di municipalité ba nee ñu lu mu gàtt gàtt juróom-ñaar fukk ak juróom juróom ci ay milliards ngir loolu nekk lu mën a jàppandal El Hadji Moussa Thiam si naaj wu tàng la ay volontaire daal di daal di xolli li nga xam ni moo di suuf soo xam ni daa jaxasoog mbalit bi foofee ca plage bi nga xam ni daanaka daa pollué ñoo ngi ci beeda aan foofu nga xam ne nag daanaka daal ni mu meloon melatu ko li ko waral mooy ndox mu bon buñ fay sotti ak itamit mbalit boo xam ni sonn na leen ci kàddu yu tukkee ci Mbàkke Sekk bi nga xam ni daa amaloon foofu benn bis buñ koy seetal bi defaroon canal bu mel ni canal 6 nga xam ne depuis juróom fukki at ak juróom mbalit maa ngi jógee Colobane ak zone industrielle di ñëw Yarax ba yàq tefes suñu toppatewoon canal bu mel ni def nañ ko nag ci canal bi nga xam ne nag daanaka jaar na si juróom-ñaari quartier loolee rek ngir wàññi mbalit gi nu muy jógee jóge ci gox yooyu di daal di nag euh, wàcc si fii si biir plage. jël benn tame def ko ci biir canal bi muy téye mbalit direction ANAS ñëw reculer canal bi loolu dina tax mbalit mi dootul dem géej te loolu waa Soumbédioune mën nañ ko def waa Ngor mën nañ ko def waa Bargny ko def waa Tëngéej mën nañ ko def ba mbalit dootul jaar ci canal à ciel ouvert dem géej. leneen luy gën taral pollution bi nag bokk na ci port autonome de Dakar ndorteelu liggéey dépollution bee da an nag saa su ne ñu koy renvoyé te nit ñi ki nga xam ni moo di premier digg ut bi daal loolee jëm ci liggéey bi dana door. industrie yëpp dañ leen bëgg a mettre aux jàppale leen ba les normes la permettre leen ñoom ñëpp de mètres de part d'autre ku nekk branché wu l' qui va réaliser l' intercepteur petit diamètre qui va partir de la zone industrielle ba Mbao avec un émissaire de 3 kilomètres en pleine mer donc problème mu d'ici mai août vraiment lépp. ministre bu yor wàllu ak économie maritime nag bañ yi nga xam ni nag dañuy napp tey polier nag jàpp na ni daal mbir mi a dugal loo xam ne nag luy tukkee ci géej gi la Alioune mooy ministre de la pêche. kon li fi yàq xëy na ci bateau li ci ëpp leer na ma ni du ay bateau de pêche. quai de pêche bi lu ndaw la port de Dakar. waaye bateau yu mag yi fiy ñëw di ay pétrolier ay tanker yooyu yëpp jàpp nañ ne tey port de Dakar en am na niveau de pollution boo xam ne war nañ ko liggéey war nañ ko saafara te loolu day am impact ci li ngay wax. kon c'est boo xam yi tey pour moderniser bi moderniser suñu infrastructure. El Hadj Mbacke Seck ba nga xam ne tam mu amaloon jëf joojule yëkkatiwaat na ay kàddu jëmale ko ci ñi nga xam ne lu ñu fab rek sànni ko foofu moo xam ay musuwaar la wala lu mu ca mën a doon ñu déglu ko ci micro El Hadji Moussa parce que li xew ci tefesu Sénégal yi jaaduwul non seulement changement climatique yi dafay tax géej gi di avancé Sénégal désert bi day avancé bekkoor bi day bari mangrove bi day yàqu àll bi ñu koy dagg di ko jaarale Gambie di ko yóbbu Chine loolu dafa tax citoyen yëpp war a jóg mel ni benn nit bañ ko parce que loi yi suñu sart may nañu ko constitution may nañu ko code de l'environnement may nañu ko code de l'assainissement may nañu ko am nañ juróom-ñaari code yu nga xam ni may na sénégalais bu ko neex su gisee lu jaaduwul fa mu dëkk mu ni jaaduwul te yoon daf ko ko may dina gën a yomb nag boo àndee kilifa yi def ko parce que ñuy yàq géej gi borom xaalis yi la yenn saa yi nag ak complice état bi mais ñun citoyen nañu am pas-pas ak mat su état bi deful lu dul yoon ñu ni ko li nga def du yoon parce que ay nit lañu comme ñun jàng ci même école yi ak ñun donc jaadu na su ñuy def dara ñu ànd ak ñoom waxtaanee ko jëfe ko parce que xale yii ñu wër ñu suñuy doom lañu li na ci ñun dañ ko war a def ci ñoom ba alam bi ëllëg ñoom ñu am conscience defar ko loolu mooy école de l'environnement ñun dañuy joxe école ci ci ci ci njàngale. waaw agression littorale bi li xew Corniche neexuñu li xew sali neexuñu li xew Somone neexuñu li xew Kayar neexuñu li xew Malika neexuñu li xew Yëmbal ak Kër Massar ak Géejawaay neexuñu tilim tilim bii aw yaraax neexuñu moo tax acteur yooyu yëpp ñëw fi tey ñu lëkkaloo fexe ba suñu wax Sénégal yëpp dégg ko ñu xam ni coowu tefes bi benn la bëggatuñu ko yàq suñu tefes ñëpp ñoo war a jot ci tefes gi bëggatuñu tefes gu tilim te loolu dinañ si xar sànq tubay loolu jàngat la loi bi ñuy wooye la loi du littoral nga xam ne ñu ngi koy togg depuis lu ëpp fukki at yàlla nañ ko sotti ak jàmm ñu yekk ko mu jëriñ Sénégalais yi partout li lu mel noonu daanaka moo am fële ca Jàmbereng nekk ca département bu ussi foofu nag itam euh, ci wàllu tefes gi ndett mbeer yi ak itam jànj yi nga xam ne dañ leen di gas moo tax nag muy fàkku ba géej gi di gën a yolu di jëm ci kër yi ñu ne nag am na ci ñooñ dañ cee dëgër bopp lool ba kenn mën leen koo tere ndax suuf soosu nuy tibb Abdoulaye Ndiaye kenn la ci kilifa yi koy aar waxtaan ci ak benn Michel Kanfoudi donc tey ñu ngi alerter nit ñi si donc euh, ñun waa population Diembéring ñëpp xam nañ ne fu mu ne nii dañ fa ubbi ab carrière carrière bi nga xam ne mu ngi toll à deux cent mètres euh, si géej gi donc ma bëgg a wax nit ñi rek du lu bees parce que amoon na temps yële am na ñaari weer ba si ñetti weer léegi ubbi woon nañ fa lu mel nii si benn carrière. donc ñun ñi nga xam ne ñun ñoo waa société civile ñun suñu association ak doomu dëkk yi ñu jóg ñu ne lii waru fi am parce que duggul si intérêt dëkk bi. boobaa lañu ñu saisir nag autorité yi fa nekk yépp ba mu egg ci saisir euh, gouverneur ñu bind ko ab bataaxal si la gouverneur bi nag jël euh, ay matuwaay ba tëj carrière boobu noonu muy lu ñuy rafetlu les mêmes personnes nit ñoo ñoom ñoo ñëwaat tey ubbiwaat carrière bi nga xam ne moo nekk tey foofu noonu Diembéring may profiter ci occasion bi di woo suñu autorités yi képp ki nga xam ne autorité nga nguur am li mu la jox si yoon utiliser ko ñu tëj carrière bi te bëgguñu sax ñu tëj yam fa mais dañoo bëgg euh, samba boo yooyu nga xam ne ñoo nokk si ñoo nekk si ginnaaw carrière bi ngi nga xam ne dara ñorul leen lu dul seen poche seen intérêt bopp ñu traduire leen en justice parce que affaire yi mu ngi bëgg a jéggi dayoo il faut que autorités yi jël seen matuwaay balaa population bi di ko fajal di fajal naqar bi seen bopp parce que jëf ju ñaaw lañ nekk di jëf instant yi nii ay sambabo yi nga xam ne gisu gisuñu leneen lu dul seen intérêt seen intérêt bopp dafa am ci askan wi ñooñ ca boori Casamance ci diwaanu Ziguinchor toll nañ ci juróom fukki junni waaye nag ñoom dañoo am ay laago ñu duppe leen ay handicap euh, handicapé yooyu ngeen baal ma ñoom ci seen bopp kët wax nañu ne ñu ngi ci ay jafe-jafe ndax charte yi nga xam ne moo leen tënk ngir mën a jàppandalal seen i mbir doxalin wi moo xaw a sooxe Ignace Ndeye duñu ñu noppi di jooy jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund di ñi nga xamante ni ñoo yor waaye laa gu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ñoom ñiy jàpp ni seen participation ci yenn yëngu-yëngu fii ci diwaan bi li ni mel sax na bu baax a baax li ko waral nag moo di jàpp nañu ni li nga xamante ni mooy loi d'orientation sociale bi nga xamante ni promulgué nañ ko lu ëpp fukki at a ngi nii ba léegi am na ay jafe-jafe te am na lu ci des lu bëri bokk na ci ci ñu daal di ko fësal ci terrain loolu tax na sax loolu tax na sax ba ñu mobiliser ci fan yi daal di saytu li ni mel ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnes handicapées yu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor jàpp ni seen situation doy na waar loolu di constat bi nga xamante ni seen président bi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor Alassane Badiane jot na ko nemmeek. soo xoolee ñu ngi toll presque personnes handicapées fii si région de Ziguinchor. ak façon handicapées yi ay tolof tolof yu mag a mag a mag a mag. wérgu yaram bi fii si Ziguinchor. def a bénéficier de de soins mais malheureusement des na lu bëri bëri bëri fii Ziguinchor soo xoolee yeneen façon handicap yi yeneen type de handicap dañ leen fàtte ci système éducatif mooy ñan mooy muuma yi les sourds yi mooy ñan mooy déficient intellectuel emploi loolu fii c'est catastrophique xooleen depuis 2010 fii ci Sénégal Ziguinchor musuñu recruter personne en situation de handicap ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci fësal loi bi nga xamante ni promulgué nañ ko fukki at ngi nii ni ñoo yor waaye laa gu nekk fii ñuy ñaan ñu daal di respecté loi bi ni di ci ñaax ñi di kilifa yi. tey ñun personnes handicapées yi amuñu benn considération si suñu autorité yi. ñetti département yi yëpp. xoolal forum bu mel ni. toog di évaluer les dix ans de la loi d'orientation sociale. invité autorité. amuñu benn autorité bu ñëw pour fekkee yi ak ñun. Euh, ces moment yoo xam ne tey. moment très fort pour nous les personnes en situation de handicap de, de la région de Ziguinchor. Ah, tey jii personne handicapées yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor jàpp nañu ni suñu amee lenn li nga xamante ni moom lañ leen war a dimbale mu di ci wàllu autonomie Ziguinchor Ignace Ndeye si FM. Ignace ndey li aju ci wàllu ay jafe-jafe yoo xam ni dafa jëm ci wàllu li ñu duppee microfinance ak itam jàppalante gi jëm ci askan wi lebalante ay koppar ak fay loole am na ay jafe-jafe gannaaw bi fi bi jaaree ak yeneen i mbir fële ci jëm ñaajo nag ña ngi fa doon daje doon waxtaan xool nu ñuy suqalee mbir yooyu lii ak itam euh, nu muy mën a tëddee itam Sahara Iyane Thiam mi leen jiite ministre boobule am na lu mu ci dénk dina seen somb. microfinance ak économie sociale et solidaire dafa bokk ci mesures yi nga xam ne président de la république jël na ko bu ñu fàttali ko weer yi ci ginnaaw am na ay mesures yu ñu jëloon yoo xam ne pour mbas mi ñëwoon la ñu mën ko dékku la mesures yooyu aussi biñ ko jëlee permettre nañu xëy na suñu réew bañ a bëri am nañ ko mais également mesures yi dafa am lu mu gàllankoor lu bari surtout ci wàllu kom ndax euh, boo seetloo ci secteur bi ñu ne muy secteur microfinance ak économie sociale et solidaire am na liggéey yu bari yoo xam ne dafa taxaw te secteur bi ñu ne lépp lu jëm ci wàllu lebal xaalis ak fay xaalis moom moo ci ne donc euh, ñooñu nga xam ne ñooy def loolu liggéey boobu koy wax SFD mooy institution de microfinance yi bi mbas mi ñëwee ñu dégg appel bi nga xam ne président de la république def na na ko ci kenn ku nekk na indi ci yéwénam ak ci mën-mënam ak ci kàttanam mu am lu mu bàyyi ci lu mu waroon am ngir euh, ñu mën a dékku mbas mi ñoom aussi dañ ko def ndax bu ngeen fàttali ko këyit acte xaatim bi njëkk bi président def mooy ordonnance boo xam ne day sàmm emploi maanaam képp ku am sa liggéey wala nga nekk si di juga ko daanu xaatim na ordonnance boo xam ne war na mën a sécuriser loolu bi mu ko defee aussi waa APSFD malgré que am na ci wàllu koom bëri yoo xam ne gàllankoor na seen liggéey terewul def nañu loolu moo tax ba tey suñu demee ba ne léegi fi ñu toll mooy nañu def relance économique parce que nit ñi mënuñu continuer rek ci mesure yi ñu nekkoon day jaadu ñun ñi seq secteur microfinance xam secteur microfinance lan mooy pàccam ci wàllu économie ci wàllu koom réew mi ñu toog ñu waxtaan ci ñoom li ñu jot a dund ci ñetti ñeenti weer yi ñu dem ci li ñu gis ne euh, état bi def na ko mais faw mu pour secteur bi gën a mën a taxaw lu tolloog ñetti million ak genn wàll nit ñi nga xam ne ñi ngi toog ci boppu koñ yi ñi ngi ci ruq yi ñi ngi ci ruqaat yi di jëfandikoo institution de microfinance yi war nañu sécuriser mécanisme secteur microfinance yi ba nga xam ne liggéey bi ñuy def dinañ ko mën a continuer fukki minute ak ñaar moo feggu ci juróom-ñaari waxtu ñu sóobu ci yeneen i fànn yitteel wàllu xabaar yi ca Kaolack ci wopp ji ñu duppee coronavirus benn ay bis bi lu mu gàtt gàtt ñaar fukki nit ak ñeent yoo xam ne wopp ji dal na leen fukki ak ñaar ak yi wàllante ci askan wi ñoo ko joxe am na ci ñaar ñu faatu awa caw situation bu Kaolack day day gën a jéggi dayo jamono ji nga xamee ne si ñoo ngi dund mbas mi nekk coronavirus te li ko waral nag moo di ci ayu bés bi ci altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ba dimanche juróomi fan ci weeru juillet diwaan bi amaat na ñaar fukk ak ñeenti contamination yu bees fukk yi ak ñaar yi nag mi ngi jóge ci transmission communautaire maanaam xamuñu sax fan lañ leen ko wàlle rax ci dolli nag Kaolack am na ñaari nit ñoo xamee ni si itam ñàkkaat nañu seen bakkan ci ayu bés bi rek loolu nag yokk limub ñi nga xamee ni sii kat génn nañu àddina ñu toll fi mu ne ci ñeent bi jàngoro ji tàmbalee ak léegi ci diwaan bi district sanitaire bu ngi Guinguinéo nga xamee ni sii ba léegi de jàngoro ji duggagu fa woon am na kaam bu njëkk ci dimanche bi mu nekk kaa boo xamee ni sii nag mi ngi bàyyikoo ci naan transmission communautaire ci ñaar fukk ak ñeenti contamination yu bees yooyu itam ñaar fukk yi ak ñett yépp day ci biir commune bu Kaolack loolu day ngi fi nekk di ne moo di am tiit daanaka moom moo dal ñi nga xamee ne sikkat ñoom ñooy professionnel de la santé yi maanaam ñiy liggéey ci barabu fajukaay yi ndaxte fi mu ne xamatuñu yan kàddu la ñuy wax askan wi nga xamee ne sikkat càggante gu mat sëkk lañu seetlu ci ñoom ci ñàkk jëfandikoo geste barrière yi nga xamee ne si moom la ñu santaane takk masque moom nekk na loo xamee ne si ñi koy def ñu néew lañu rawatina nag ci barab yi nga xame ne si askan wu bare dafay daje fu mel ni marché bi soo duggee ci mbedd yi ci buntu kër yi wala sax fi nga xamee ne si moom moo nekk taatu garab yi askan wi dey dañuy daal di groupe ñëw toog di naan seen attaaya wala ñuy waxtaan rek rawatina nag ci quartier yi nga xamee ne si mel na ni Saara jàmm gën Saam wala Ndorong yegg nag ci nag ba ñenn sax ci askan wi di wax ne lii daal lu ñuy wax la rek mais jàngoro ji amul muy situation boo xamee ne sii nag suñu moytuwul dey ñu yóbbu ci musiba su fekkee ne defuñu dara ci nu mu gën a gaawe awa caw doon jokkoog yéen ci diwaan Lam Saloum pour Sud FM. Euh, ca Tivaouane li tolloog ñeent fukk ak ak ñeent fukki junni ak ñeent ci ay masques yoo xam ne yii euh, kilifa yi am na fu ñu ko wut foofu foofule conseil départemental ba ngir daal fexe ba aar askan wa ndax wopp ji mu ngi fu ne Babacar woy bi nga xamee ni coronavirus mu ngi koy woy ci diwaanu Tivaouane conseil départemental sas jigéen ñi nga xamee ni ñoo nekk ci département bi ngir ñu faagaagal li nga xamee ni moo di coronavirus Tivaouane département la boo xam ne bii jàngoro ji mi ngi woy di law jamono ji su nemmee ko ni am na kaa yu bëri yu ñu signalé ci bés yi mujj yi ba tax sax lu toll ci ñeent fukki junni masque ak ñeent daan lañ leen dajale ngir séddale ko groupement jigéen ñi nga xamee ni ñoo nekk ci département bi soxna Seynabou Gaye Touré jëwriñ ji nekk ci bopp conseil départemental doon def li ni mel itam di ñaax njaboot gi ñu gën a topp li nga xamee ni moo di santaane yi nguur gi tëral. 44 000 masques. les femmes am rôle bu mag bu ñuy joué. ndax lii ñu def rek moo lay wan ne la xam nañ seen rôle suñu xamul woon seen rôle bu ñu leen wooyee ci initiative bu mel nii duñ ko nangu mais dañ cee ñëw ak cawarte jigéen jóg jàppale jigéen groupe de travail bi nag yéen ñëpp xàmmee ngeen ñi fi ne commune département bi ku ci ne am nga ku la représenté ñaar ba ñett ku liñ di ñaaxaat rek pour wax leen ni leen jàngoro bi mi ngi ci dëkk mi ngi fi bu baax léegi ñu a looy def lu doon farata na nga toog sa kër uuf sa njaboot dañu ñaax xale yi ñuy takk seen masque sensibiliser leen ci cet gi masque tamit du lu ñu jël di ko def ci sikki masque dañ koy takk ku nit bu ne war naa am ñaar ba ñetti masque di lu ñu dippee jigéen bu nekk téeméeri masque àndandoo booloo di xàccandoo di tegandoo suñu sukkandikoo ci madame la ministre Seynabou Gaye Touré li mu yëy yàbb yi di masque yoo xam ne daañu ko séddale daara yi gaaru ceer ak ndeyu daara yi ndax mi moo ko waral te léegi ñu gisee soxla yu ñu am ci masque ci laa ni dañuy continuer collecte masque 100 parce que bi ñu defee collectif bi ba mat weer dañoo changé suñu tur tudde ko actrice accompagner toutes les transformations économiques culturelles et sociales 4J jigéen jóg jàppale jigéen les femmes na dañ ci am rôle bu mag bu ñuy joué ndax lii ñu def rek moo lay wan ne la xam na seen rôle suñu xamul woon seen rôle bu ñu leen wooyee ci initiative bu mel ni duñ ko nangu mais dañ cee ñëw ak cawarte jigéen jóg jàppale jigéen ñu fonk suñu jigéen ñi xam ne kat mosuñoo des ginnaaw Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokkoo ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow kon xam na foofu la ñuy daal di taxawandi euh, juróom-ñaari waxtu moo dem ba feggoog fukki minute ak euh, juróom-ñaar soxna Maria. jërëjëf El Hadj Maodo Faye dig daje fii lekk juróom-ñetti waxtu incha allah ci yeneen i xibaar. incha allah jërëjëf Maodo Faye. les matins sur Sud FM Sen Radio avec la voix bonheur de Siste Maria qui vous dit l'info, c'est ici.

BC et en PhD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre quatre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci nous disposons aussi d'un parc industriel laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54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 CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre quatre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi dañu lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip arobase csip point sn visitez notre site web www.csip.sn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 en mode majeur. Les temps changent et le monde bouge. Sud de l'info. Les matins sur Sud FM Scène Radio avec la voix bonheur de Siste qui vous dit l'info c'est d'ici. Sud FM Scène Radio. Sud FM Scène Radio, seconde édition que l'on démarre Babacar bonjour. Rebonjour Maria, rebonjour à tous et à euh, euh, au centre et de faux médicaments d'une valeur de 90 millions 875 000 francs CFA saisis en une semaine par la douane au centre et au sud du pays. Le poste des douanes de Pâques a réalisé dimanche dernier une saisie euh, portant sur 25 900 paquets de 100 comprimés de Storpak. C'est la famille du paracétamol. Quatre jours auparavant, précisément mercredi, 3000 boîtes de Viagra et des centaines de boîtes de Corinza ont été saisies par la brigade mobile des douanes de Nioro, euh, subdivision de Kaolack. À Kaolack, nous y restons pour parler de ce drame. Un homme âgé de ans tué par la foudre dans l'arrondissement de Koumbal. L'accident a également fait quatre blessés. Ils étaient tous à bord d'une charrette et suite aux pluies diluviennes, ils voulaient se protéger sous un arbre. Les détails avec vous, Mamadou Camara. Ce lundi vers 18h, de fortes précipitations ont arrosé le Saloum. La foudre a fait une victime et quatre blessés entre la commune de Kerbaka dans l'arrondissement de Koumbel et celle de Ndofane. Le nommé Seydou Diara, âgé de 22 ans et ses quatre amis étaient à bord d'une charrette. Ils avaient quitté Ndofane pour se rendre à Kerbaka. Et suite à une pluie diluvienne, ils voulaient se protéger sous un arbre. C'est à ce moment précis qu'ils ont été foudroyés. Seydou Diara, âgé de 22 ans, originaire de a rendu l'âme sur le cou. foudre, ses quatre amis qui étaient à bord de la charrette ont eu des blessures légères. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional et la Ibrahima Niass de Kaolack par les sapeurs-pompiers. Alertés, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaolack se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Sud FM Kaolack il est 7h32 euh, minutes euh, direction Diourbel le maire de la ville de Bambey a organisé un point de presse pour euh, éclairer l'opinion sur le lotissement du DVF qui a été décrié par le collectif des jeunes pour la défense des terres de Bambey Selon Gana Mbaye, ce lotissement a été fait selon les normes requises. Il indique par ailleurs que euh, des dispositions ont été prises pour un abattage massif des chiens errants. Ces propos sont recueillis par Adama Ndiaye. Toute la procédure a été encadrée par les services techniques compétents. Une commission d'attribution a siégé et sur 9000 demandes, plus de 8000 demandes, il n'y avait que 2000 et quelques terrains. Donc c'est normal qu'après cette attribution-là, il Et la commission a choisi. Après le travail, ça a été sanctionné par un procès verbal signé par toutes les parties prenantes et approuvé par l'autorité compétente. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus militants que ceux à qui on a attribué ces terrains-là, donc c'est leur point de vue personnel. Mais nous leur disons tout simplement que c'est dans l'ordre normal des choses. La deuxième préoccupation est liée à la situation des BIDEC. c'est-à-dire des gens qui sont installés spontanément dans le territoire euh, communal. Ces gens-là, compte tenu du fait que c'est des populations de Bambay qui sont dans le besoin, ah, nous avons traité euh, cette situation-là. Et à terme, après des enquêtes faites avec les services compétentes nous les avons séries et nous avons pris l'engagement avec eux de satisfaire ceux-là qui sont dans ces zones avec leurs familles donc qui sont dans des situations de détresse et qui ont besoin d'être assis. Sur les deux sites, nous avons enregistré 314 personnes. Et on a soumis le dossier à la commission d'attribution et qui a satisfait à tous ces 314 personnes-là. Et puis le de la cité Apix de Tivaouane Peulh, nous sommes à Rufisque en mars lundi dans de la Descos de la vieille cité de Koumbalamb. Deux membres du collectif font l'objet de plaintes déposées par des soi-disant détenteurs de baux sur le site à les populations empêchent de construire. Un titre foncier attribué par l'État aux personnes impactées par l'autoroute à péage immatriculée 6043R. Impossible donc soutien

octroyer des baux sur un titre foncier de l'État. Avec des titres fonciers, on ne peut pas comprendre comment on peut, sur un titre foncier de l'État, que des particuliers quand même puissent octroyer des baux à titre privé sur, le même titre foncier. C'est un groupe malfaisant qui, par des voies de recours, on ne sait pas d'où, ont réussi à se procurer des, des baux sur des sites, et non pas sur des sites euh, identifiés, mais sur des espaces qu'on peut qualifier

nos droits. Et tout ce qu'on doit, c'est que le droit soit dit. Et c'est ça qui nous intéresse. Parlons de la Bédane qui souffre toujours des effets de la pollution liée aux eaux usées et des déchets solides. Une vaste opération de nettoyage. Les volontaires de l'environnement s'engagent. Le port de Dakar et l'absence de système de collecte des ordures pointés du La municipalité annonce le démarrage de la dépollution de la en mi-août euh, pour un projet de 79 milliards de francs CFA. El Hadji Moussa Thiam. Sous un soleil de plomb, des volontaires décablent le sol pollué de la place de décaper, on la baie de Hann a perdu son lustre d'antan. Sa pollution causée par les eaux usées et des déchets émanant d'autres localités renseigne Mbacké Seck, l'initiateur du Cleaning Day. dégradé à cause de mètres d'eau usée qu'on reçoit journalièrement, mais nous de déchets. Donc il faut un programme qui complète ce programme de gestion des eaux usées par un des déchets. Un degré au niveau du canal 6 qui traverse cet quartier pour de la pollution aux déchets a été installé, a indiqué toujours ce dernier. Enrayer les ordures dans le canal 6 qui est créé

Fall ministre de la pêche et de l'économie maritime. C'est un ensemble, c'est notre côte qu'il faut préserver notre côte, préserver notre mer et à l'avantage aussi des acteurs de la mer. Il va falloir une stratégie d'ensemble, une collaboration de tous les acteurs pour préserver l'essentiel. On ne peut aujourd'hui réhabiliter la rente halieutique dans un environnement marin de cette sorte. Le maintenir, le démarrage des travaux de la dépollution reprises, l'adjoint au maire annonce le début des travaux en mi-août. Matar Diaw de renchérir pour indiquer que le projet va également régler le problème des pollueurs-payeurs. Le démarrage est imminent. Toutes les industries qui sont à 60 mètres de part et d'autre seront connectées au niveau du, de l'intercepteur petit diamètre. Donc je pense bien qu'avec un branchement de plus de 100 ménages, donc aujourd'hui je pense bien que le projet va régler les problèmes. El Hadj Moussa Tiam, pendant ce temps, la destruction des dunes de sable sur le littoral de Djembering, c'est dans le département d'Oussouye, se poursuit malgré l'arrêté interdisant les prélèvements dans cette zone fortement menacée par l'avancée de la mer. Ce phénomène inquiète l'association Ourok Jouad qui regroupe les fils de Djembering. Le président invite les autorités à stopper ce désastre écologique et à traduire en justice les contrevenants. Abdoulaye Ndiaye, le président de l'association Ourok Diouat au micro de Ben Michel Kanfoudi. Nous avons noté ces jours passés une pratique très dangereuse d'extraction de dunes de sable qui est en train de se passer à Djembarin. Il y a de cela aussi deux à trois mois, nous avions constaté les mêmes faits. En tant qu'association Ourok Diouat, nous nous Et nous avons à ce moment saisi les autorités, à savoir monsieur le gouverneur, qui a enfin pris la sage décision de fermer définitivement la carrière. Aujourd'hui, je vous dis que les mêmes personnes sont revenues à la charge, mais cette fois-ci, ils sont allés encore beaucoup plus loin, à 200 mètres de la plage, pour extraire du sable. Alerte et je saisis par la même occasion toutes les autorités assermentées. Si une carrière doit être ouverte, c'est avec le consentement de la population et de sa société civile. Nous, en tant qu'association, nous nous sommes farouchement opposés à toute extraction de dune de sable qui n'entre pas dans le cadre de l'intérêt de Djembarin. Aujourd'hui, les mêmes pratiques continuent et nous ne demandons même pas la fermeture, mais nous demandons aussi que ces acteurs soient traduits dans les instances juridiques pour qu'ils rendent compte parce que c'est un acte dangereux qui guette notre population. On a crié avec le phénomène de la région côtière que nous sommes menacés. Aujourd'hui, des gens nous viennent encore pour leurs intérêts crypto-personnels sans se soucier de la, du bien-être de la population, faire une extraction de dunes de sable. Nous disons non à cette extraction et nous voulons que ça s'arrête immédiatement. Sud FM. Et nous allons parler de la situation difficile des personnes en situation de handicap euh, de la région sud face à la problématique de la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. Ces personnes en situation de handicap, ils de elles sont près de 50 000 ans dans la région qui alertent et déclinent les exigences, mais aussi lancent un plaidoyer. Instey. Elles ne cessent de crier leur triste sort. Ces personnes vivant avec handicap dans la région qui trouvent leur participation aux différentes activités de la vie très limitée aujourd'hui. La faute aux difficultés liées à la mise en application de la loi d'orientation sociale. Loi qui a d'ailleurs fait l'objet d'une évaluation par ces personnes en situation de handicap regroupées autour de l'Union régionale des organisations des personnes handicapées. La situation reste aujourd'hui plus que difficile pour ces personnes en situation de handicap. président fait le triste constat. Dans la région de Ziguinchor, nous constatons qu'en dépit des efforts qui ont été faits, les personnes handicapées restent en marge des programmes ordinaires de développement. La mobilité, l'appareillage, l'accès aux soins de santé L'éducation, la formation, l'emploi et la carte d'égalité des chances restent de grands défis pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Tous ces aspects que nous venons de citer sont pris en compte par la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, mais le respect et l'application constituent un grand problème. Face à la problématique de la mise en œuvre de cette loi pourtant promulguée il y a dix ans, le respect de cette mais sur fond d'interpellation. Nous pouvons constater que la mise en application de la loi d'orientation sociale présente encore beaucoup d'insuffisances et de lacunes. Il faut donc que l'État, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion, des organisations de personnes handicapées, vous la presse, les personnes ressources se mobilisent pour le respect de cette loi. Des personnes en situation de handicap dans la région qui plaident aujourd'hui plus pour une autonomie que pour une assistance. L'autonomie des personnes handicapées est aujourd'hui notre objectif principal au détriment d'une assistance qui finit par affecter la dignité humaine. Ziguinchor, Ignace Dey, a FM. Ignace Dey, euh, faire avancer le front agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est le credo de Abdoulaye Ba qui euh, euh, a vite compris que la vocation de la région de Kédougou n'est pas que de la minière. Euh, il s'investit euh, dans l'agroforesterie et euh, l'élevage avec à la, plus, à la clé plusieurs emplois créés. Euh, plusieurs emplois créés autant pour moi Boubacar Tamba fait un tour dans son ferme à, à Sémikouta reportage dans la région de Kédougou le front agricole a reculé au profit de celui minier Pour inverser la tendance, des initiatives sont prises, comme celle d'Abdoulaye Ba, nous l'avons trouvé dans sa ferme de Samekouta. Donc là, c'est des arachides, qu'on a cultivées ici. Et ça donne très bien, c'est de l'autre côté À l'entrée de Kédougou. Et là, c'est quoi, ça Là, c'est le gombo. On a cultivé le gombo, hmm. du piment, hmm. goana, hmm. et plus des, des concombres et, poivrons. Tout ça, c'est vendu ici dans le marché. Et eh, Mais ça... <laughs> cette année, le piment n'a pas tellement marché parce que beaucoup de gens l'ont fait. le kilo est allé jusqu'à 500 francs. Alors que l'année dernière, euh, le kilo était à 4000 à Mais avec le début de l'hivernage, vraiment, ça promet encore. Quoi. Et de l'autre côté, je vois des arbres fruitiers. Là-bas aussi, on a fait euh, beaucoup de plantations d'arbres mmh. des manguiers, des citrons. Surtout des citrons. on, en a bien besoin dans cette région. Voilà, parce qu'une fois, j'ai acheté les citrons, euh, un citron euh, Moi-même, j'en ai acheté hier à 250. depuis lors, j'ai un ami de, de qui m'a donné un coup de main, qui m'a amené au moins 30 et quelques citrons greffés. Mm. Et moi, personnellement, les citrons locaux qui sont dans la zone, mm. j'ai mis au moins une trentaine ou quarantaine. Mm-hmm. Et de l'autre côté, je vois des bassins piscicoles. Ici, on a quatre bassins mm-hmm. de 4 mètres sur mètres mm-hmm. et 1 mètre de hauteur. Mm. Là, on a et quelques promet quoi, vraiment. Ah. on est en train d'augmenter encore Ouais, je vois que de 10 mètres, oui, 10 mètres sur j'ai contacté les j'ai contacté. J'ai contacté même, euh, j'ai les documents avec moi, les réponses aussi qu'ils m'ont donné aussi avec, par comme, comme et le programme de mise à niveau le Natangé, euh, Tout ça, j'ai essayé. Hein. Pader, Donc j'ai essayé. Chaque fois, j'essaye, malheureusement, j'ai pas eu de chance pour. l'instant. quoi. Mais je remercie le bon Dieu, Je me débrouille avec mes propres moyens. Hmm. Parce que la terre ne ment pas, quoi. Ah, ça, c'est clair. <laughs> ça, c'est l'or vert, quoi. Ah, c'est projette de figurer sous peu parmi les ténors de l'agro-business et indiquer ainsi la voie aux la région de Kédougou. Boubacar Tamba de retour de Samekota pour Sudef. Merci à vous Boubacar Tamba, vous qui avez fait un la ferme d'Abdoulaye Ba, c'est à Sémikota. la députée ministre de la Santé du Développement communautaire doivent être remises sur la table selon le chargé de de la COSM Diallo, Abdoulaye Diouf Sarr et Mansour Faye doivent rendre compte sur les moyens injectés la riposte contre la Covid-19. Ils déplorent manque de solidarité des parlementaires et estiment que toutes les organisations de la société civile euh, qui donc prônent la bonne gouvernance doivent soutenir cette démarche. Daïda Mbodj, Abou Diallo, de l'organisation de la COS M23 est interrogé par Marie Rosaline Ndiaye. D'abord, c'est de remercier l'honorable député Mbodj euh, qui a saisi euh, les prérogatives que la loi lui permet en tant qu'honorable député représentant du peuple demandant à ce que le pré euh, les deux ministres viennent à l'Assemblée nationale rendre compte pour évaluer les moyens injectés sur la riposte. Donc aujourd'hui, ce que nous condamnons, c'est que euh, nous avons vu cette manque de solidarité entre députés. Nous avons vu Aïda Mbodj quand il interpellait les deux ministres, c'est par la voix du peuple. Il voulait qu'il y ait de la transparence parce que actuellement tous les Sénégalais se posent la question parce que c'est l'argent mobilisé, c'est les recettes moyens nous avons vu beaucoup de failles sur le problème de communication nous avons vu aussi des dépenses non justifiées on nous avait parlé des commandes partout on nous avait demandé que les riz devaient terminer à partir de telle date on a rallongé on on demande aux Séné les Sénégalais disent qu'ils ne sont pas encore reçus leur kit euh, alimentaire si Euh, euh, notre député honorable député Aïda Mbodj interpelle ces deux ministres toutes les organisations de la société civile toutes les organisations qui parlent de bonne gouvernance et tous les tous les Sénégalais devaient don soutien pour qu'on puisse voir ce qui se passe c'est pas l'Assemblée nationale réunie avec les députés de la majorité qui donne satisfaction à Diouf Sarr c'est pas une une question de huis clos donc cette question ça devrait être même l'émanation même du de, de, des propres ministres qui devaient même venir à l'Assemblée nationale dire aux députés nous venons rendre compte si une des députés Aïda Mbodj vient leur demander ça ils devraient bénéficier du soutien du peuple et ils ne devaient pas fuir ce débat parce que les Sénégalais veulent savoir ce qui se passe sur les 1000 milliards et les 50 milliards qu'on avait injectés au niveau de la L'utilisation sans le consentement de la personne de données à caractère personnel est protégée par la loi sur les données personnelles actualisée dans le code pénal de 2016. L'expert en cybersécurité se veut formel. Khadim Bamba Thiam, fondateur de MTIC Protection, plaide pour une meilleure sensibilisation des populations par rapport à l'utilisation des MTIC. Le voici au micro d'Amadou Moustapha Dian. L'utilisation sans le consentement de de données à caractère personnel d'une conversation privée est protégée euh, par la loi. Et la loi sur les données à caractère personnel votée en 2008 a été actualisée dans le code pénal de 2016. Et si vous, vous regardez l'article 431-14 qui dit, je cite, celui qui, même par négligence, procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel, sans avoir respecté les formalités préalables à la mise à disposition, à la, à la mise en œuvre euh, prévue par la loi sur les données à caractère personnel est punie d'un emprisonnement de d'un an à sept ans et d'une amende de, qui peut aller jusqu'à euh, dix millions d'amende de francs CFA. Oui, euh, comme nous avons remarqué, il, était difficile de de de euh, de, de consulter euh, les réseaux sociaux sans voir des personnes proférer des injures. Comme je dis tout le temps, les injures Euh, les, la, la, la calomnie, les atteintes à la vie privée ne sont pas permises dans le monde physique. De la même manière, elles ne doivent pas être acceptées sur, sur, Internet. Et il est, essentiel euh, de sensibiliser les, les, Sénégalais sur les risques qui peuvent provenir d'une utilisation irresponsable des technologies de l'information et, de la communication. Et ils doivent avoir l'idée en tête que les fondements juridiques ne manquent pas au Sénégal, c'est-à-dire ne font et toute atteinte à la vie privée d'une personne, telle qu'elle soit la forme, peut être euh, punie euh, par la loi. Encore une fois, sensibilisation est le maître mot euh, pour euh, amener les Sénégalais à utiliser les technologies de l'information et, de la communication, surtout les réseaux sociaux, mmh. de façon responsable. L'Internet ou les technologies de l'information et de la communication ne sont pas euh, en fait euh, une zone de non-droit. Avec euh, l'ouverture de l'autopont Saint-Lazare, la mobilité a normalement euh, repris. Euh, les automobilistes vaquent à leurs occupations sans trop de difficultés, mais le calvaire se poursuit pour ceux qui empruntent le rond-point Kër Gorgui. Bonjour les embouteillages. Josette Biagui Kali. Tout est désormais plus fluide pour les automobilistes. L'ouverture des autoponts Saint-Lazare et cité Keur a réduit les pertes de temps et autres embouteillages constatés jadis sur cet axe. Vaquer à ses occupations n'est plus un souci. Mais j'ai remarqué que récemment, ça s'est amélioré. Je ne dirais pas normalement, mais ça s'est amélioré par rapport aux mois précédents ou aux années précédentes. on l'a ouvert, bon, la circulation ça va parce que Si on a pris euh, le VDN pour partir, on n'a aucun problème. C'est devenu rapidement, eux on est content aussi. Vous savez, les taxman aussi aiment les choses qui sont rapides. Quoi. Donc si on n'a plus de clients, on ne veut pas avoir des choses qui, qui vont nous retarder. Quoi. Mais la situation est tout autre au rond-point de Kurgorgi. Malgré la mise à disposition des populations de ces autoponts, les fils indiens de voitures sont toujours là. Traverser ce tronçon, Coincés depuis un certain moment dans les embouteillages, ces messieurs assurent que rien n'a changé pour eux qui empruntent cet axe habituellement. tout le temps, il y a toujours de la communication, des problèmes. On sait pas si ça va finir, mais à chaque fois on vient, tu vois les barrières rouges là, on le met là, tu fais des tours, des allers-retours. Euh, je sais pas, c'est compliqué quoi. En ce moment, on est en période d'été. Mais malheureusement, ça ne change pas et ça ne va jamais changer. Et je ne pense pas que ça va changer tant que c'est toute une répercussion comme ça sur les citoyens. C'est un blocage global. Rien n'a changé. Ça, ça s'est augmenté de problèmes que Mise en place pour faciliter la mobilité, ces autoponts remplissent pour le moment leur fonction, du moins pour les automobilistes qui les empruntent, mais en bas, c'est toujours le calvaire pour contourner le rond-point Kër Gorgui. Voilà, Maria, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous, Babacar Samb. On vous donne rendez-vous à... À 12h. À 12h pour une autre édition. Merci à vous qui nous suivez aussi sur Sud FM. Sen Radio 98.5 Vous nous écoutez à Thiès sur la 102.2. Hey Sud Éducation. Nous sommes Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Sud Éducation, info, assisté conseil pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Mariam et Aïda qui nous parle ce matin dans Sud Éducation de comment inculquer la religion aux enfants. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce 35e numéro de Sud Éducation. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Mariam, coach en éducation, directrice d'une bibliothèque, d'un centre d'activité, club de loisirs pour enfants et adolescents à Dakar. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Alors, lorsqu'on est croyant, Mariam, y a-t-il un âge idéal pour commencer à parler religion avec son enfant? Faut-il attendre que l'enfant nous questionne ou devons-nous tout simplement nous y aller euh, avec notre choix éducatif euh, et proposer quelque chose à l'enfant? Aïda, tout parent croyant et pratiquant vit sa religion tous les jours. C'est-à-dire, euh, même dans les actes les plus banals de la vie quotidienne, on vit notre religion. Et la religion et Dieu sont toujours présents dans le discours des parents, normalement en tout cas, ou devraient l'être. Ils vont par exemple ponctuer leur discours de si Dieu le veut, loué soit le Seigneur, etc. Ils vont également prier se rendre dans des lieux de culte et leurs enfants seront donc témoins de tout cela Parfois, les enfants vont même, euh, très souvent, même les, les accompagner. Ils vont fêter des fêtes religieuses avec les enfants, avec tout le rituel que cela euh, suppose. Et tout cela va paraître à l'enfant très naturel. Et il n'est pas évident que l'enfant, euh, spontanément, pose des questions à ses parents, en fait. c'est comme boire de l'eau, manger. Il va pas spontanément dire pourquoi est-ce qu'on mange. Il ne va pas spontanément demander pourquoi est-ce qu'on prie, parents d'aborder la question de la religion et de l'aborder de façon simple et naturelle et surtout de façon euh, très récurrente, c'est-à-dire que euh, tous les jours, euh, finalement, on va un petit peu en parler, répondre aux questions de l'enfant, parce que dès lors qu'on en parle, là, l'enfant pourrait avoir des questions. Et puis, il existe, on peut s'appuyer sur des choses qui existent. Il existe, par exemple, en librairie, de nombreux ouvrages qui racontent la religion aux enfants, donc avec des mots d'enfants, sous forme de contes par exemple, et avec euh, un vocabulaire qui est très simple et très abordable pour les enfants. Alors, ne peut-on pas tout simplement euh, déléguer tout cela euh, à des maîtres euh, ou euh, euh, ne pas les parents n'ont peut-être pas à s'impliquer autant, d'autant plus qu'ils ne pourraient ne pas en avoir la pédagogie. Qu'en penses-tu? Alors oui et non. euh, il est sûr que pour apprendre euh, ce que je bah, le verbe tout simplement, c'est-à-dire les saintes écritures et leur interprétation, il est préférable de prendre un, un maître euh, comme euh, comme tu dis, mais euh, cela ne prive pas euh, les parents, ne devrait pas priver les parents de parler à leurs enfants de leur propre rapport à la religion euh, et de leur raconter aussi des anecdotes en lien avec leurs croyances ou des histoires religieuses qui, euh, qui paraîtront toujours plus savoureuses pour l'enfant euh, lorsque ça vient de la bouche d'un parent plutôt que euh, de celle d'un professeur. Donc euh, avoir un maître ne signifie pas du tout que le parent se retranche de, de l'éducation religieuse de l'enfant. Au contraire, il va s'appuyer aussi sur ce que va dire le maître. il, il faut interroger l'enfant Tout comme plusieurs fois, je l'ai dit, euh, que les enfants qui rentrent de l'école, il faut les interroger sur ce qu'ils ont appris, etc. Il faut également interroger l'enfant sur ce qu'il apprend dans ses cours de, de religion et ainsi euh, rebondir là-dessus pour pouvoir euh, compléter cet enseignement. Alors, les enfants qui vont à l'école ont un certain rapport avec l'enseignement académique. Ils ne l'intègrent pas vraiment dans leur vie quotidienne et mettent une certaine distance entre ce qu'ils apprennent et ce qu'ils adoptent dans leur vie de tous les jours. il ne faut pas que ce rapport-là s'instaure dans, le rapport à la religion, puisque la religion, comme je l'ai dit, appartient à la vie quotidienne. il est crucial qu'elle soit euh, transmise tous les jours par les parents aussi. Et c'est l'occasion pour les enfants de poser des questions, comme j'ai dit, et pas forcément de les poser à leur, à leur professeur, qu'ils n'osent pas euh, poser à leur professeur. Alors justement, en parlant de professeur, à quelle fréquence conseilles-tu euh, de suivre les cours de religion, les cours de Coran, euh, les cours de catéchisme, etc. Alors, euh, je dirais que au moins deux heures par semaine, ce serait, euh, ce serait très bien. Euh, il est important que, que, les parents comprennent que ce n'est pas euh, une course contre la montre. Donc ça, c'est important parce que souvent, les parents se mettent beaucoup de pression. Alors, euh, ils vont se dire, euh, ou ils vont même dire à, leur, euh, à leurs parents, à leurs enfants, pardon, euh, qu'il faut atteindre un certain niveau avant un certain âge. Euh, parfois, ils vont se comparer eux-mêmes à l'enfant. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais déjà dépassé ce stade. où ils vont même comparer l'enfant à, à celui euh, de leurs amis ou à euh, celui euh, de d'autres euh, membres de la famille. Et ça, c'est une terrible erreur. Bon, d'abord parce que je déconseille toujours de comparer l'enfant à votre enfant à qui que ce soit, mais aussi parce que chacun apprend à son rythme et qu'il est donc impératif que cet apprentissage se fasse sans traumatisme, sans heurts, parce que sinon on va <laughs> avoir un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que on va euh, l'enfant va associer l'apprentissage de la religion à des coups, euh, à du stress, et en fait il va plutôt s'en éloigner plutôt que euh, s'en rapprocher, et puis il, risque aussi de l'associer à, une obligation, à une rigidité, et, euh, donc finalement un manque total de souplesse. En fait, euh, ce que je retiens, c'est qu'il faut surtout qu'on puisse transmettre à nos enfants euh, cette, cette idée ou bien même cette vérité que la religion se vit tous les jours et que c'est quelque chose qui doit être intégré en fait et qui n'est donc pas euh, une obligation euh, comme euh, aller en classe, etc. et tout ça. C'est une, une façon de vivre, c'est un comportement. C'est exactement ça. pour résumer et retenir tout ce que tu viens de dire aussi, euh, cet apprentissage doit donc se faire sans pression, en douceur et avec beaucoup de souplesse. Exactement. Alors, beaucoup de parents choisissent de mettre entre parenthèses l'apprentissage de la religion pendant l'année scolaire. Euh, euh alors, pas du tout ou beaucoup moins d'heures, en tout cas, pendant l'année scolaire pour ensuite, au moment de, dès qu'on prend les vacances, mettre des bouchées doubles euh, pendant l'été. Est-ce une bonne solution Alors c'est une solution qu'il faut essayer d'éviter parce que j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment intégrer la religion et son apprentissage dans notre vie de tous les jours. Donc il faut essayer de le mettre, euh, de faire de la place dans l'emploi du temps de, l'enfant euh, pendant l'année pour que cet apprentissage de la religion euh, se fasse de manière assez fréquente et régulière dans une semaine normale de l'enfant. Mais si cette solution de, l'été est ou 5-6 éviter justement que ce soit trop et que, l'enfant n'ait pas de vacances, parce les vacances c'est quand même très important pour les enfants. Et donc il est préférable de limiter cet apprentissage à quelques heures par semaine ou alors un apprentissage intensif comme on voit par exemple qu'il y a des internats religieux euh, d'un mois par exemple sur euh, l'ensemble des vacances et de laisser ensuite euh, à l'enfant la possibilité d'avoir des vacances parfaitement normales. Merci Aïda, à très bientôt. N'oubliez pas de réagir sur notre page Facebook euh, Sud Éducation. Au revoir. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8 heures. juróom-ñetti waxtu dem ba teg li nga xam ne moo di ñetti simili ñuy jégalu bu baax baax ci simili yooyu nga xam ne moom la ñu tàdde ngir xibaar yi ci yaatal ci kàllaamay Kocc deuxième édition El Hadj Maodo Faye salaamaaleykum. ñaareelu pàcc bi jëm ci wàllu xabaar yi ok waaye deuxième édition moom beneen affaire. non léegi léegi olof bi ñëw. ok waaw xam nga naar bi làkk olof. voilà waaw moo tax moo day xaw moo tax day xaw a xaw a këfin. <laughs> fu waaw ñu koy tàmbalee ci euh, maanaam tënk goo xam ne gii daanaka dañ koy tënk rek ci ak njàpp goo xam ne gii xeeti garab yi nga xam ne yu bon la yoo xam ne yii bu ñu xaymaa sax euh, koppar yooyu la tubaab bi duppee ko faux médicament toll na ci juróom-ñeent fukki million ak lu toppandi ci ay ay ay ay koppar ci ay bis gi nga xam ne moom la ñu génn génn euh, douane nag ñoom ñoo ko jàpp fële ci euh, boori Mbàkk ci bët saalumu réew mi euh, te loolu dibéer jël itam loolu maanaam amaatoon na boo seetloo itam am na ci loo xam ne toll ci fukki junni ak juróom yu yoo xam ne ay xeeti garab ay comprimé te loolu daanaka ca Mbàkk loolee baaxul woon itam douane def ci liggéey bu am solo ay fan yi rek toogaat nañ ci ay fan ñu toolaat ci jàpp goo xam ne amaatoon na itam lu ko jiitu ci àllarba jël itam lu tollook ñetti junni ci ay boîte yoo xam ne xeetu ay Viagra la defoon ak yu demee noonu la loolu itam ñu daal leen doon jàpp itam ca Nioro ñi nga xam tam ñoo fa yore wàllu douane itam am ci lim boo xam ne bi jàppoon nañ ko euh, ci subdivision bu nekk fële ca Kaolack maanaam làcc wi nga xam ne moo féeteeg wàllu douane euh, jàpp euh, xeeti garab yooyu la ca Kaolack ba léegi soxna Maria fa la ñuy desandi daal di sóobu nag ci xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne jëmm a ngi ñii yoo xam ne toll na ci ñaar fukki at yàlla ak ñaar moom nag kàddu gi moo dal ci ko maanaam dënd bi foo la ca Kambal mu nekk nag itam mbir mu tiis Mamadou Camara altine bi boor yi 6 maanaam boor yi 18 taw na taw yu métti fii ci biir Saloum dënn bi daal di faat benn xale bu góor boo xam ne bii mi ngi wuyoo ci turu Seydou Jara toll ci ñaar fukki at ak ñaar ñeenti nit nag muy ay xaritam jëlee ci ay gaañu gaañu ñoom ñoom nag dañu nekkoon ci benn saret bàyyee woon booru Ndofane doon dem commune Kër Baka ci arrondissement Koumbal bi nga xamee ne taw bi ñëw na bëggoon nañoo làqu daal di dem ci benn ron garab jamono jooju nag dënn bi ñëw dal seen kaw Seydou Jara ci ñaar ak ñaar dëkk Ndofane moom ci saa paase la ñàkk bakkanam fas bi nga xam ne moom lañu takkoon ci sereet bi moom it jaar fa dee ñeenti xaritam yi tamit jëlee ci ay gaañu gaañu néewu Seydou jara sapeur pompier bi ñu ñëwee yóbbu nañ ko ci morgue hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu bi biñ ko yëgalee gendarmerie brigade territoriale bu gendarmerie bu Kaolack yónni na fa ay ndaw pour ñu constater mbir mi Kaolack. Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maire bu nekk fële ca euh, Bambey euh, foofe am na daal tas euh, doon jànloog taskatu xabaar yi ngir leeral askan wi ci ay lotissement de maanaam daal ay suuf suñu doon joxe ak yu demee noonu askan wa ndaw ñu doon ko naqarlu Gana Mbaye moom ci boppam ay ay kaddu yu mu ci dénk aadama Ndiaye. dañu am benn lotissement boo xam ne nii état daf ko autorisé ñu def appel à candidature nit ñi déposé seeni demande ñu am ci lu ëpp juróom-ñetti junniy demande te li ñu amoon ci ay terrain di ko joxe ñaari junni ak lu topp la kon jaadu na bu ñu joxee ñi ci ëpp du ñu am jaadu na ko ñenn ñi mer mais ñu jàpp ne aussi séddale fu mu amee ah te la ñuy séddale gën a tuuti ñañ koy sédd obligatoirement ci ñañ koy sédd dina am ñoo xam ne duñu am te dinañ mer ñun yoonu ñu waroon a jaar te yoon imposé ñu pour ñu jaar jaar nañ ko commission d' attribution réunir na sanctionné ko ak procès verbal boo xamante ni boo leen bëggee secrétaire général bi ne leen ko won ngeen xool ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk commission d' attribution yëpp signé procès verbal bi ñu jël ko jébbal ko autorité compétente bi mu approuvé ko kon jàpp nañ ne ñun li ñu waroon def yëpp def nañ ko teg nañ ko ci yoon lotissement bi 2012 la woon boobu ñu nekk gu ñu meer ñu topp ci di topp ci di topp ci di topp ci di ci liggéey ba 2020 yàlla dimbali ñu te terrain yi ñu ko naanuñu ko population yi lañ ko jox kon yaakaar naa ñi ñu ko jox dañ leen ko war a yéene ñi amut muñ ba beneen yoon parce que loolu mooy àdduna. mbootaay goo xam ne gi ñoom ñi nga fekk baax nekk benn collectif bu cité apix fële ca Tivaouane Pël ne ñoom euh, daal euh, ci altine ji sax ñoom démb demoon nañ ci bërëy bërëb yéen ñu duppee Descos daal fa am ca Tëngéej itam am ci ñaar ci membre collectif yooyu lay daal def ay plainte yoo xam ne yóbbu nañ ko foofule ndax daal ñi ne titre foncier ñi ne suuf si ko moom am ñu fa doon bëgg tabax coow li na kur Mamadou Lamine Dia mi jiite collectif boobu waxtaan ci ak dindi si assemblée. ñun de gendarmerie la ñu jot ñu xëy ñu jox ñu convocation au niveau de la Descos yi nga xam ne dañoo ñëw parce que ñun euh, la ñu déplacé ci autoroute muy piste 1 piste 2 les vulnérables état Sénégal jël suñu kër yi tabax jox ñu benn titre foncier immatriculé si suñu dagg ko 2039 jox ñu ko bàyyi ñu ay espace yi nga xam ne dañ ko war a toog suñu doom yi am fu ñu fooy ak ay nit ñëw di ko dagg te site de recasement waruñu ko dagg parce que kenn war ko jaay alors que dañ ko morcelé jox ko ay nit ñu dagg ko am ci biir affaire boobu dafa am ñoo dem ut euh, benn privé dagg ci biir site boobu 60 ñoom nag xaw ma fu ñu jëlee c'est-à-dire dafa nekk ay deux mille trente neuf am na ñoo xam ne dañ fa am ay kër ñoo xam ne dañu leen déplacé auto à péage bi. ay nit même équipe bi moo ñëwaat présenté foofu ay boobu bu ko jël. léegi ñoo nag nee na ñu dañ leen empêché ñu liggéey. ci kaw teg fa ay banc ak ay garab quoi. te ñoom nee ñoom moom foofu. mënuñu ko moom parce que titre foncier 143 R. ñun ñi nga xam ne lañ déplacé autoroute à péage. waxoon na waxoon nag ñun ci projet boobu. buñ ñu ko joxee léegi ay nit jógee fële am ci titre foncier privé. sur un titre foncier de l' état. kooku dañuy xool moo tax. parce que ñun aussi dañu war a sauvegarder espace boobu. parce que ñun ñoo ko moom ko si euh, immatriculé ñu war nous sommes des légalistes le collectif est là seen alal la ñu moom di ko défendre ci loolu la ñuy dox ñun suñu fii nekk ñun ñoo ko moom te dañ koy gérer enquête dina am enquête dina ubbeeku te je crois que si loolu bu amee dëgg jëla feeñ comme affaire dafa nekk en cours gendarme aussi dafa am lu nga xam dañ koy bëgg liggéey parce que dossier bi il faut mu leer dossier bi il faut ñun ñu dem ba xam lépp fa mu jóge ak loolu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu dem ca fële nga xam ne moo di aan ak itam li nga xam ne moo fa ci wàllu ban bi nekk foofule ak poso poso yeeg ndox meeg mbalit yi foofu daal ñu ne tam doñ ko doon bale eh, def doon ngir tam nettoyé ko maanaam bees eh, yeesalaat laabal ko daal ndax béréb yooyu kët eh, dafa xaw a dand fii nu toll nii El Hadj Moussa Thiam si naaj wu tàng laay volontaire daal di daal di xolli li nga xam ni moo di suuf soo xam ni daa jaxasoog mbalit bi foofee ca plage bi nga xam ni daanaka daa pollué ñoo ngi ci benn aan foofii nga xam ne nag daanaka daal ni mu meloon melatu ko li ko waral mooy ndox mu bon buñ fay sotti ak itamit mbalit boo xam ne sonal na leen ci kàddu yu tukkee ci Mbàkke Sekk bi nga xam ni daa amaloon foofu benn bis buñ ñu defaroon canal ne fukki at ak juróom ak zone industrielle di ñëw Yarax tefes suñu toppatoo bu mel ni tefes def nañ ko nag ci canal bi nga xam ne nag daanaka jaar na si juróom-ñaari quartier loolee rek ngir wàññi mbalit gi nu muy jógee jóge ci gox yooyu di daal nag euh, wàcc si fii si biir plage. jël benn tame def ko ci biir canal bi muy téye mbalit direction ANAS ñëw reculer canal bi loolu dina tax mbalit ñi dootul dem géej te loolu waa Soumbédioune mën nañ ko def waa Ngor mën nañ ko def waa ko def waa Tëngéej mën nañ ko def ba mbalit dootul jaar ci canal à ciel ouvert dem géej. leneen luy gën a taral pollution bi nag bokk na ci port autonome de Dakar ndorteelu liggéey dépollution bee da nag saa sa ne ñu koy renvoyé te nit ñi indi cee leeral waaye nag ki nga xam ni moo di premier adjoint na ni sax diggu ut bi daal loolee jëm ci liggéey bi dana door. industrie yëpp dañ leen bëgg a mettre aux normes jàppale leen ba les normes la permettre leen ñoom ñëpp de 60 mètres de part et d'autre ku nekk branché wu l' entreprise va réaliser l' petit diamètre qui va partir de la zone industrielle ba Mbao avec un émissaire de 3 kilomètres en pleine mer donc problème mu d'ici mai août vraiment lépp. ministre bu yor wàllu ak économie maritime nag bañ ko ni nag dañuy napp tey polier nag jàpp na ni daal mi ñëpp ci war a dugal seen loxo rek ngir gën a ñoŋal loo xam ne nag luy tukkee ci géej gi la Alioune mooy ministre de la pêche. kon li fi yàq xëy na ci bateau li ci ëpp leer na ma ni du ay bateau de pêche quai de pêche bi lu ndaw la port de Dakar waaye bateau yu mag yi fiy ñëw di ay pétrolier ay tanker yooyu yëpp jàpp nañ ne tey port de Dakar en tout cas am na niveau de pollution boo xam ne war nañ ko liggéey war nañ ko saafara te loolu day am impact ci li ngay wax kon c'est un bi moderniser suñu bu baax a baax ca boori Jembereng nekk ca département bu Oussouye ah, foofu tamit ba léegi rek itam ñi ngi taxaw daal di tere ñi nga xam ne dañ fay nekk di jël suuf si ndax tam loolu day tax rek géej gi di gën a dandu jëm ci kër yi am na ci ñoo xam ne ndett mbeer yi dañ koy faral di fab di fab suuf soosee loolu nag nañu képp ku mën a doon koo xam ne kii bawoo ko ah, yoon mën naa dem ba dal ci sa kaw Abdoulaye Ndiaye waxtaan ci ak benn Michel Kanfoudi donc tey ñu ngi alerter donc euh, ñun waa population Diembéring ñëpp xam nañ ne fu mu ne nii dañ fa ubbi ab carrière carrière bi nga xam ne mu ngi toll à deux cent mètres euh, si géej gi donc ma bëgg a wax nit ñi rek du lu bees parce que amoon na temps yële am na ñaari weer ba si ñetti weer léegi ubbi woon nañ fa lu mel nii si benn carrière. donc ñun ñi nga xam ne ñun ñoo waa société civile ñun suñu association ak doomu dëkk yi ñu jóg ñu ne lii waru fi am parce que duggul si intérêt dëkk bi. boobaa lañu saisir nag autorité yi fa nekk yépp ba mu egg ci saisir euh, gouverneur ñu bind ko ab bataaxal si la gouverneur bi nag jël euh, ay matuwaay ba tëj carrière boobu noonu muy lu ñuy rafetlu les mêmes personnes ni ñooñu ñoom ñoo ñëwaat tey ubbiwaat carrière bi nga xam ne moo nekk tey foofu noonu Diembéring may profiter ci occasion bi di woo suñu autorités yi képp ki nga xam ne autorité nga nguur am lim la jox ci yoon utiliser ko ñu tëj carrière bi te bëgguñu sax ñu tëj yam fa mais dañoo bëgg euh, samba boo yooyu nga xam ne ñoo nokk si ñoo nekk si ginnaaw carrière bi ngi nga xam ne dara ñorul leen lu dul seen poche seen intérêt bopp ñu traduire leen en justice parce que affaire yi mu ngi bëgg a jéggi dayoo il faut que autorités yi jël seen matuwaay balaa population bi di ko fajal di fajal naqar bi seen bopp parce que jëf ju ñaaw lañ nekk di jëf instant yi nii ay samba yi nga xam ne gisu gisuñu leneen lu dul seen intérêt seen intérêt bopp. Eh, ci wàllu eh, jafe-jafe yi nga xamante ne ñi ñu yore am ay laago eh, nga xam ne ñu nekk ay handicapé te nekk fële ca diwaanu ci Ziguinchor am nañ ko ndax nee na charte yi ni ñu ko war a doxale seen loi yi nga xam ne mooy tax tam ñoom ñu mën a fexe daal ba am lu ñu mën a jëfandikoo ci seen paj wala boog seen liggéey juróom fukki junni lañ fa bari lool waaye ba léegi njaw desandiwu xam biin Ignace Ndeye ah, du ñu noppi di jooy jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund di ñi nga xamante ni ñoo yor waaye laago nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ñoom ñiy jàpp ni seen participation ci yenn yëngu-yëngu fii ci diwaan bi li ni mel nasax na bu baax a baax li ko waral nakk moo di jàpp nañu ni li nga xamante ni mooy loi d'orientation sociale bi nga xamante ni promulgué nañ ko lu ëpp fukki at a ngi nii ba léegi am na ay jafe-jafe te am na lu ci des lu bëri bokk na ci ci ñu daal di ko fësal ci terrain bi loolu tax na sax loolu tax na sax ba ñu mobiliser ci fan yi daal di saytu li ni ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnes handicapées yu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor jàpp ni seen situation doy na loolu di constat bi nga xamante ni diwaanu Ziguinchor Alassane Badiane jot na ko nemmeek. soo xoolee ñu ngi toll presque mille personnes handicapées fii si région de Ziguinchor. ak façon handicap yi ay tolof tolof yu mag a mag a mag a mag. wér gu yaram bi fii si Ziguinchor. def nañu dégg la carte d'égalité de chance. pour permettre aux personnes handicapées mu mun a bénéficier. sur les services de soins. mais malheureusement des na lu bëri bëri bëri. fii Ziguinchor soo xoolee yeneen façon handicap yi yeneen de handicap. dañ mooy ñan mooy déficient intellectuel emploi loolu fii c'est catastrophique xooleen depuis 2010 fii si Sénégal Ziguinchor mosuñu recruter personne en situation de handicap. ci jafe-jafe yi ñu ne nemmeeku ci fësal loi bi nga xamante ni promulgué nañ ko fukki at a ngi nii tey jii ñi nga xamante ni ñoo yor waaye laa gu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor lenn dong la ñuy ñaan ñu daal di respecter loi bi ni mel di ci ñaax ñi di kilifa yi. tey ñun personne handicapé yi amuñu benn considération si suñu autorité yi. département yëpp yi toog di évaluer les dix ans de la loi d'orientation sociale invité autorité amuñu benn autorité bu ñëw pour fekkee partager ak ñun euh, ces moment yoo xam ne tey moment très fort pour nous les personnes en situation de handicap de, de la région de Ziguinchor. Ah, tey jii personne handicapées yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor jàpp nañu ni suñu amee lenn li nga xamante ni moom lañ leen war a dimbale mu di ci wàllu autonomie Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax fexe tam bëgg na jañax wàllu mbay mi mu jëm ca kaw ngir ñu mën koo xeexee lépp loo xam ne aju na ci wàllu dund gi ca Tambacounda ba mbay mi di doy sëkk loolu Abdoulaye baa mi nga xam ne gis naa ne mbir yi fok rek ñu jëm ci fexeetu mbay moom la ndax miin yi rek moo fa mën a indi am koom Boubacar Tamba. fii ci diwaanu Kédougou kenn ku ne xam na ni mbéy mi daa suux ndax gasum urus mi ci ña fiy xeex ngir loolee doon lu ñuy nettali la Abdoulaye Ba bokk fekk nañ ko ci fermam bi nekk Sameko. depuis daaw maa ngi béy gerte. day joxe daf na am ah, mu ngi joxe bu baax macha allah vraiment ñu ngi ci sant yàlla bu baax a hmm. parce que gerte bi dañ ciy am lu bari ko dañuy am gerte dinañ am ngooñ ngooñ bi parce que am nañ ay jur jur gi moo nag beneen mboor bi booy dugg Kédougou voilà booy dugg Kédougou ah, lii mooy lan kànja moo fi nekk ak euh, ak poivron xam nga nuñ concombre gis nga aussi plantation maa yi euh, ak ak citron yi ñu greffé yi limon bi moom soxla bu mag la ci Kédougou bu mag a mag citron moom vraiment j'ai mis le paquet parce que citron vraiment dafa jafe Kédougou mos naa jënd benn citron à 250 ak Kédougou man mi jënd naa dëmb 250 ah si beneen wàll bi gis naa ni da nga ay jën am nañ ci 4 bassins hmm. yu 4 mètres sur 3 ak benn bu 4 mètres sur 4 quoi à peu près on a 5000 poissons te ñu leen jëndee ci dagu itaato bi waaw te gars yi ñu ñu jàppale bu baax a <laughs> waaw lépp luy élevage daal ñu koy def waaye ay kanaara yëpp. ay jafe-jafe moom mu ngi koy jànkonteel. def naa kii yu bëri ay ay demandes yu bëri. loolu jafe-jafe la. waaw jafe-jafe bu bari parce que même projet yi ay par exemple mën naa leen citer ah. waaw amul problème naa citer ANIDA. Hmm. ANIDA am naa fa dossier am naa demande am naa kii ak euh, programme de mise à niveau aussi. Hmm. Kédougou fii vraiment def nañu nekk mais yàlla def na vraiment aw ma chance. Euh, kii ak ñoom ay Pader tout ça là mais yàlla def na vraiment amaguma. amaguma sa bopp ngay demal nii. sama bopp laay demal nii. loolu moom jafe-jafe la. waaw jafe-jafe bu métti métti parce que nii nii maa ngi lu mot ay sept employés. di nga am ay ñuy gas urus fi ñëw di wut si liggéey. waaw waaw bien sûr bien sûr surtout temps yi temps yi ah, euh, ah, hmm. hmm. dañuy xëy le matin ba ay midi Mm-hmm. donc ils sont comme de la famille fii la ñuy añee aussi fii la kii quoi. donc vraiment ñu ngi ciy kii ndànk-ndànk te ñoom aussi vraiment ñu ngi ciy kii bu baax. ñu ngi gis seen bopp. gis nga fleuve moo nekk nii. donc euh, on a les pompes on a tout quoi. ok ay at yu néew moom Abdoulaye Ba fas yéene naa bokk ci ponk li ñu fiy tudd ci wàllu agro business su ko defee mu nekk royuwaay ci ndaw yi Boubacar Tamba doon Bawo Samekuta. rajo Sud FM. li aju ci wàllu gannaaw ba juróom-ñett waxtu demee ba fekkoog luy tolloog euh, fukki minute ak euh, juróom-ñett euh, lii nga xam ne Aïda Mbodj député waxoon na ko daal ngir ñu war ko mën a teg ci taabal ji waxtaane ko daal jëmale ko ci ministère bi ñu dénk wàllu ñu yor wàllu Covid 19 bi ak la ca war a mën a leer waa COS 23 ne daal ah kay loolu daa war a mën a nekk lu ñu daal di gaaw a càmbar sax itam rawatina ak itam moom ak itam ak kii di Mansour fay loolee mooy li nga xam ne moom moo jaadu ban toog ba waxtaane ko sax ñoom ne daal itam loolu dafa war a nekk nekk li nga xam ne mooy eh, jàppale gouvernement gouvernance boo xam ne bi day am ci loxo yi sell yoo xam ne lépp dafa war a leer Abou Diallo moom lañu dénk wàllu organisation ci COS 23 waxtaan ci ak Marie Rosalie Ndiaye. waaw loolu dañuy njëkk a gërëm euh, député Aïda Mbodj félicité ko. sant ko parce que en tant que député ak représentant du peuple moom war na ne askan wi ñoo ko fa yóbbu moom bi mu nekkee ci xeex bi ànd si ak ñoom wuy ji président de la république dem sur le terrain bi mu toogee ba mu yàgg mu gis ni ñu ngi gis alal bi ñu ngi naan jël nañu 1000 milliards def ko ci santé bi jël nañ 64 milliards dugal ko ci santé bi jël nañu lu takku ci xaalis jox ko ministère développement communautaire mu ne dafay dem dimbali ci nit ñi sur le terrain ñaar yooyu yëpp ñu gis askan wi cible yi kenn ku si ne ne jotuloo te doxalin bi jaarul yoon santé bi ñu gis ni malade yi mu ngi yokk secteur santé bi ñu ngi grève ñii problème mu euh, personnel santé yi nekk ci dalal jàmm ak yépp ñu ngi foofu di grève ñii ñii ñu ngi wax ci problème infrastructure sanitaire yi problème lal yu manqué yi ñu ngi wax ci problème mu garab yi ñu ngi wax ci insuffisance rénale yeeg yeneen maladies liées yi nga xam ni bokkul ak feebar yi ñoom it ñu ngi kaas donc secteur yépp a ngi kaas donc Aïda Mbodj bu jëlee boobu kii yóbbu ko assemblée nationale nga xam ne ministres yi ci seen wàllu bopp ñoo waroon boole ci seen principe de bonne gouvernance daal di redevabilité daal ne dinañu delluwaat parce que ñaari secteurs yi rek lañ doon wax war nañoo dellu si waat pour ñëw rendre compte le parlement moom mu jël in defuñu ko moom mu jël initiative bi dem assemblée teg ko sur la table de Moustapha Niass ñu gis ni les députés sax dañoo désolidariser ak moom alors que ñoo régulariser ak moom mu dem di table assemblée nationale ñu gis le président de l'assemblée defu di ko te société civile bi euh, taxaw seen place li ñu waroon def li Aïda Mbodj def ñoom ñoo ko waroon def ñun ñoo ko waroon def ñu nekk société civile bi ñiy xeex bonne gouvernance ak ñiy xeex contrôle citoyen ñoo waroon demander que assemblée nationale autosaisir amul loi d'habilitation dafa nekk ak leneen dañu war a rendre compte peuple bi rendre compte soxla soxlawul ay loi parce que président daal bu soxlaa dara en urgence dañ ko koy jox te ñun ñoo délégué suñu pouvoir kon nag société civile nañ jóg jàppale Aïda Mbodj sur cette question li aju ci wàllu li ñu duppee ay données personnelles nga xam dafa war a nekk itam ci cybercriminalité bi li nga xam ne boo ko siiwalee euh, loi bi mën naa dal ci sa kaw ci atum ci code pénal bu 2016 bi ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu cyber euh, sécurité tamit euh, ñoom itam ñu ngi ci doon wax ne daal war nañoo gën a mën a ñaax askan wi bu baax a baax kii di Khadim Bamba Thiam waxtaan ci ak Amadou Moustapha Dieng. loi 2008 indi na ay daan. Euh, yoo xam ne euh, nit ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy jëfandikoo wala dañuy utiliser euh, information yoo xam ne nit moo ko moom nga xam ne comme ni ma ko leeralee ci ci kanam xam ne dañuy wax ay ay ay atteinte spécifique la boo xam ne ak ak yelleefu doomu aadama yi ci données ak carte personnelle par exemple mën a jël benn article rek parce que bëri nañu bu ñuy wax quatre cent trente et quatorze boo xam ne wax naan nit ko képp koo xam ne bu fekkee par négligence la da nga da Euh, jëfandikoo wala wala wala euh, euh, traité ñu wax traité ay données à caractère personnel ba pare respecté formalité yi nga xam ni loi sur les données à caractère personnel moom la prévoir mooy li ma wax ci kaw te gën na ko yaatu loi bi mën nañ mën na mën na indi na ay ay ay daan yoo xam ni dafay dem dafay tàmbale benn atu kaso ba juróom-ñaari atu kaso ba tamit ci wàllu ndàmp ci wàllu amande ndàmpaay Euh, day jóge cinq cent mille francs dem ba dix millions demande lépp loo xam ne nit ki moom moo ko moomal boppam comme ni ma ko essayé si vie privée moo xam photom image am euh, son vidéo am nit ki jël ko jëfandikoo ko te tàggoowul borom yoon mën na dal ci kam ndaxte loi des données à caractère personnel fay encadrer utilisation Euh, information boobu maanaam nit ki moo moo boppam waaw ndax nit ñoom foog foog ñu leen yee ñu xam ne internet paaka ñaari boor la mun na yàq àdduna nit mun na yàqal ki nga xam ne moom moo mooy victime bi mun na yàqal tamit ki nga xam ne moom si boppam mooy moo moo mooy jëfandikoo ñaawteef yooyu ba tax na yeete bi moom mbir la boo xam ne li ñu war a def fii fii fii Sénégal la defe naa xamoon nga association TIC protection boo xam ne euh, loolu moo nekk loolu mooy mooy euh, mooy mooy rëlam di yéen nit ñi si musiba yi nga xam ne moo am ci internet bi ko moytu ba tamit xam ne ngi fi ngir ngir encadrer utilisation mooy jëfandikoo bi ñu jëfandikoo données à caractère personnel képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo ci naka sul noonu internet bi ak réseaux sociaux yi yoon mën a dal sa kaw daañu ko dégluwaat ci catal xabaar yi li aju ci wàllu dem beeg dikk bi tàmbaliwaat na sax ci yoon wi jaar ci boori euh, euh, Jana Seydi Saint-Lazare ak itam yi jëm ci wàllu cité kër góor gi waaye nag am na ci yenn ruq-ruqaat yoo xam ne moom jafe-jafe yi tar na lool ci dem fa Josette Kañ fi mu ne nii dem ak dikk bi gënati na yomb ci automobiliste yi ubbitewu autopont Saint-Lazare ak cité kër góor gi wàññi na seen perte de temps yi ak it embouteillage yu ñu daan nemmeeku ci diggante boobee fu mu ne nii dox sa soxla nekkatul loo xamante ni njaxare nga ciy àndal. vraiment lii moo wax dëgg la bu ñu ubbee ba léegi moom sant yàlla ñuy gis suñu bopp nga ndax. xaw na tane léegi de waaw seetlu naa ne daal dem ak dikk bi gën na tane par rapport ak ni mu meloon bu njëkk quoi. boo fi jaaree moom vraiment amul benn nañ ciy nemmeeku réew yi soppeeku na bu baax a baax. waaye du loolee la ñu nemmeeku ci rond point kër góor gi donte jébal nañu population yi oto autopont dem ak dikk amu fa oto yi ñu ngi rangaloo jéggi boobee rond point lu métti la daanaka nga war a dem Sacré Cœur wala nga wutali ancienne piste ñu nekk ci embouteillage yi daanaka ay diirangi yile góor ñoo jàpp ni dara soppeekuwul si ñoom ñi nga xamante ni dañuy faral di romb ci bile yoon. lépp day répercuté wu rek parce que ay problème yu continuel yoo xamante ne dañu chaque fois day parce que. rond point bi fii di nga ñëw jaaree nii ba yegg fii fay teg euh, kii yu yooyu. te obligé nga demaat ba ci biir après tourné waat jël voie bi embouteillage vraiment moom. xaw ma luñ ciy defar mais des na quoi des na dafa métti trop. mënuma comprendre peu importe tamit suñ mënee tooy yu bëri ba léegi des fois tamit su dee période scolaire yi gën a compliqué ñun dañuy gën a da ngay xalaat ne xale ñu bëri liggéey yu ñu jàng yu ñu mais ba léegi phénomène bi dafa doy waar daal ñu woon ko ngir yombal dem ak dikk bi autopont yi ba fu mu ne nii ñu ngi def seen liggéey nam ko waree si ñi nga xamante ni ñoo koy jëfandikoo waaye ci suuf du loolee lañu ñu nemmeeku ndax ña fay jaaree ñu ngi ci ay jafe-jafe bu baax a baax rawatina ci rond point bu kër góor gi. li aju ci wàllu tabaski gi doonte sax pandemi bi maanaam coronavirus bi jaar na fi ak wàllu koom tamit crise bi xaw a doy waar lool jaaykatu xar yu bare bari nag ñoom nañu ah ñu ngi am yaakaar day ne yëf yi doon dox waaye nag euh, daal dañoo ragalit ne xar yi mën naa bañ a bari euh, ndax daal gisee su leen daal te tamit client yi it fi mu toll nii kenn gisu leen waaye nag ñu ngi am yaakaar ba léegi Ismaïla Marcel Coly naam ci jamono mbas la ñu nekk ñii di tàmm di jaay xar ci jamono tabaski bi ñu ngi ñuy xamal ne amuñu benn jaaxle ci seen wàllu activité njaay mi dina dox kon mu daan doxee ci at yu ñu weesu. non amuñu benn tiitaange parce que mbas mi boobu ba tey mi nga am te yàlla dogal na ñi ñi ngi dund yàlla moo fi indi mbas bi te boobu ba tey ñi ñi ngi dund ñi ngi sant yàlla ba mënoon na gën a metti am na yeneen dëkk yoo xam ne ni ñu sax lii ñi sant yàlla alhamdulilah bañ ko talee mais amuñu benn xel ñaar ci borom dina defar lépp incha allah. am comme d'habitude parce que comme li ma lay wax rek am na nit yoo xam ne de famille yoo xam ne ñoom tabaski bi préparé nañ ko bu yàgg am na ñoo ci a am fekk ci Sacré Cœur moom mi ngi ñuy xamal ne njaaxle bu mu am mooy lu jëm ci wàllum client yi mu jàpp ne xar nar naa manqué ci même réew situation bi fi mu toll nii dafa nekk situation boo xam ne li ko ëmb dafa bari benn bi mooy que éleveurs yi nga xam ne dañu nekk Dakar et ses environs seen xar du doy pour consommation bi fii ñaareel bi mooy que xar yi nga fiy jugee ay Mauritanie wala jugee Mali damay ragal ne dina néew donc loolu yëpp day nekk loo xam ne nii day néewal xar yi fi dugg euh, ñetteel bi mooy que euh, ministre moom ci boppam wax na ko nee na yi nañu teel a jënd seen xar parce xamul ëllëg lan mooy am mais yaakaar naa ne daal situation bi buy métti métti métti ragal naa ne ci consommateurs yi maanaam nit ñi nga xam ñoo war a jënd xar lay métti parce aussi ñu ci bëri ñàkk nañ seen liggéey ñu pendant yéenew leble benn xar. tàmm nañ di ko def mais ren moom wóolu wóolu ma ñu def ren moom wóolu ma ñu def ko parce que tamit si client yi dafa am ñoo xam ne tamit comme tey boo nekkee sa koñ gars yi xam ne da jaay xar au ñu dajeel ci ndakaaru di ñaax askan wi wi ñu ñu teel a génn mën a jënd seen xar ñoom ñu jàpp ne ren boo tulee xar dina manqué bu baax a baax ci même réew te njëg yi dinañu gën a yokk bu xar manqué jërëjëf euh, Ismaïla Marcel Kori kon nag euh, soxna Maria Euh, foofu la ñuy daal di taxawandi mel na ne kon ñu daal di war a sóobu ci wàllu yëglekaay yi. foofu la ñu jëm El Hadj Maodo Faye yow ñu jox la dig daje fileeg benn waxtu. incha allah ci yeneen i xibaar ci yaatal ci kàllaamay Kocc ni mu ko waxee noonu la ñu koy defee ñaar fukki simileeg juróom-ñett moo tegu ci li nga xam ne moo di juróom-ñetti waxtu dañuy àndandoo ak ajaxatu Ndeye Marieme Ndiaye mu indil ñu li nga xam ne rek moo di euh, revue de presse bi ci wolof PSIP ñëpp ràññee ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre quatre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable portable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip arobas csip point sn visitez notre site web www.csip.sn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 ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip arobase csip point sn visite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 aussi l'éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Hey, Sud Éducation, info, assisté conseil pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Mariam ak Aïda ni ñuy àndeek ak ñoom saay su ne ci li nga xam ne moo di Sud Éducation tey nag dañoo xëy ah, di euh, gëstu rek li nga xam ne noonu la ñu war a def ba xale yi ñu def ci ñoom li nga xam ne moo di diine. mbokk yi ñuy déglu dal leen ak jàmm ci 35e émission Sud Éducation ni ñu koy defee saa su nekk mag Mariam ñoo bokk plateau bi ni ma koy waxee saa su nekk Mariam coach en éducation la directrice su benn centre d'activité club de loisirs ak bibliothèque pour enfants ak adolescents fii ci Dakar Mariam nuyu naa la. Aïda maa ngi lay fay. maa ngi lu ñu indil ci waxtaan bi. tey suñu waxtaan mi ngi wàll mi ngi dem jëm ci euh, wàllum euh, xale ak diine naka lañ leen di yaree ci suñu euh, diine. pour ñi ci gëm yàlla bëgg seen doom yi am seen diine xam diine dañ leen war a bu xale bi xaw ma ñaata at lañ leen war a jàngal affaire diine est-ce que dañu war a xaar ba xale bi commencé leen a laaj lu tax ñuy julli lu tax ñuy wax alxuraan lu tax naka la ñu war a aborder question bi ak xale yi. waajur boo gis boo xamante ni gëm na yàlla te am na am na religion boppam am na diine Euh, da ngay gis ni diineem da koy dund euh, bés bu yàlla sàkk euh, lu mu mënti def rek dina ci boole yàlla dina ci tudd yàlla ba nga xamante ni xale yi dañuy màggaale ak yooyu di déggaale seen di dégg seen ay waajur di tudd yàlla naan incha allah alhamdulilah loolu yëpp dafay nekk ay wax yoo xamante ni dañ koy dégg ba xamante ni ñoom diine daal dafay bokk ci ñoom comme lekk naan nalaw ba mujj bi sax di ci poser ay questions di ci laaj ay laaj seen ay waajur duñ ko sax xalaat ndaxte xam nga xale du ñëw di la wax yaay wala papa lu tax ñuy lekk wala lu tax ñuy naan wala lu tax ñuy nelaw en général question yooyu balaa ñoo ñëw sax dina fekk ñu xaw a màgg tuuti loo tax euh, mun nañu bañ a xaar nag ba xale bi commencé di ñu laaj ay ay laaj ci yàlla ak ci ci wàllum diine. te sax suñuy dem ci ay euh, ay cérémonie moom mën na nekk euh, suñuy suñuy dem julli ji sax suñuy dem euh, jàkk wala église wala su fekkente ni dañuy feete ay fêtes religieuses muy Noël tabaski korite wala Pâques loolu yëpp xale yi dañ ciy participer te loolu yëpp ay occasion la yoo xamante ni mën nañu toog di waxtaan ak ñoom ci wàllum diine di leen raconter ay histoire diine ba nga xamante ni xale yi dinañu dinañu dem ba ba comprendre lan mooy diine lan mooy kan mooy. yàlla ak euh, naka la julli ak ñaan ni mu amee solo euh, te nag su fekkente ni xamuñu naka lañuy waxtaanee diine ak suñu doom yi mën nañ tam jënd ay téere yoo xamante ni dañ koy jaay ci librairie yi yu ñuy ci ci biir téere yooyu dañuy expliquer xale yi ak ay moo yu simple yu ñu mën a comprendre euh, naka la diine demee ak histoire yi nga xamante ni ñoo ñoo wër diine Euh, mais bu fekkee ne ñun en tant que waajur euh, mënuñu expliquer vraiment amuñu pédagogie bi wala xamuñu vraiment daal naka la ñuy koy expliquer suñu ay doom est-ce que waruñu jël loolu rek jébbal ko ay euh, ay maître ay professeur wala ay nit yoo nga xam ne loolu mooy seen métier yóbbu leen ci daara wala woo benn metre coranique mu ñëw wala et façon église yi moom xam naa ne organiser nañu sax ba nga xam ne xale yi dañuy dem catéchisme ak yooyu naka la ñu am euh, benn maître boo xamante ni daf lay jàngal sa diine lu am solo te loo xamante ni dama ko conseiller bu baax waaye nag euh, warul euh, wa li ma bëgg a wax mooy que obligation di waxtaan. Euh, waxtaanu diine ak suñu doom wàccul euh, wàccuñu ñun en tant que waajur euh, parce que dañu am benn maître bu leen di jàngal waaw loolu dañ ko dañu war a boole diine ci suñu waxtaan ak suñu ay doom ci sunu ay ndigal ci te ba nga ba nga xamante ni du ñu foog ni daal diine seen oustaz wala seen professeur seen maître rek moo leen war a wax affaire diine il faut que ñoom ñu ñu suñu nekkee ñun tam ñu mën a fii seen ndaaf mën a di waxtaan ak nu wax seen waajur ci wàllum diine. te ndaxte nag xam nga xale soo ko yóbboo école li mu fay jàng en général dafa du ko du ko indi ci kër gi euh, balaa moo wax sax di tudd li mu jàng école il faut que yow nga ko ci laaj ay laaj yu bari balaa moo commencé wax li mu jàng école wala sax nga toog ak moom def ay devoir moo tax su fekkente ni diine bi tam benn professeur benn oustaz benn maître moo ko koy jàngal mujj bi day foog ni loolu tam foofu foofu rek la dëkk te dëkkul ci biir kër gi te ñun waajur yi ñoo koy delloosi ci biir kër gi fi mu dëkk ndaxte diine dafa nekk comme ni mu ko waxee dara loo xamante ni dafa war dund bés bu yàlla sa sàkk. Euh, xale yi bu fekkee ne ne war a yóbbu ñu dem jëli ay cours dem jàngi maanaam euh, jàngi mbirum mbirum religion euh, mbirum diine ci ñaa ban mooy fréquence su yi ñaata yoon par semaine nañ fa war a dem wala ñaata yoon ci mois bi ñaata yoon ci bés bi lan moo ciy sa xalaat lii euh, li may conseillé mooy euh, li mu néew néew daal na nekk ñaari waxtu ci semaine bi euh, ndaxte li li li am solo daal mooy que mu bokk ci vie quotidienne xale bi ba nga xamante ni du du passé benn semaine boo xamante ni waxuñu ko waxu diine te waxuñu ko waxu diine ci classe nga xamante ni vraiment dañ koy jàngal diine ndaxte waxu diine moom mën na nekk saa saa su ne saa soo leen amee occasion bi te nag li gën a am solo mooy bañ a teg benn pression éducation xale bi ba nga xamante ni su fekkente ni sax mi ngi jàng alxuraan nga bañ ko wax ni ah, man bi ma tolloo sa âge xamoon naa ba suraat bii Euh, wala wàcce woon naa hmm. wala sa xoolal sa sa cousin bi sa doomu bàjjen bi wala sa doomu tante bi moom fi mu nekk moo dépassé na la te te yaa ko mag yooyu yëpp nga xamante ni dafay frustré xale bi ba nga xamante ni xëy na dina dem sax ba jàng bi dootu ko dootu ko intéressé tellement li am solo mooy li muy jàng moom te nekk na nekk rythme moom ndaxte xale boo gis amuñu même rythme bi tolluwuñu ci euh, tolluwuñu ci ci même stade bi euh, comparé ak yeneen ak yeneen yeneen xale euh, loolu nag vraiment erreur la bu leen comparé seen doom ak kenn surtout nag ci ci wàllum diine ba mu ndaxte warul nekk traumatisme dafa war a nekk dara loo xamante ni dafay neexal xolam dafay bëgg ba su su su jógee dem di jàngi daf ko dafa war a nekk mbégte ci moom dafa war a nekk dara loo xamante ni su koy fàttaliku su demee ba dem nekk mag dafay nekk dara lu neex loo xamante ni ay souvenirs yu yu neex lay nekk. léegi bu ma bëggee daal tënk li ngay wax mooy que dañu war a euh, jàng bi dañ xale yi dañu war a jàng diine san bu te am am benn pression duñ ci am benn stress ñu jàngal leen ko ndànk jàngal leen ko ak flexibilité ak souplesse. di di waxtaan ak ñoom. di waxtaan ak ñoom mm-hmm. euh, ba ñu xam ne sax que diine ci seen dund bés bu nekk la bokk. waaw léegi euh, waajur yu bari dañuy choisir parce que ñun ñëpp de ci waajur man mi ci sama bopp dañuy nekk du ñu xam kañ la ñu war a vraiment intégrer jàngum diine. liggéey bi ci biir année bi ndax xale yi dañuy nekk année scolaire donc dañuy dem di jàngi école am na ay waajur yoo xam ne dañuy bàyyi euh, njàngum diine bi njàngum alxuraan beeg yooyu ba nga xam ne année scolaire bi jeex na ñu jël ko def ko ci biir vacance yi du wala ci biir année scolaire bi ñu jàngal leen tuuti bu vacance yi ñëwee ñu daal di leen jël def leen peut-être mois bi yëpp wala 3 mois vacance yi ñu koy jàng yow lan nga xalaat ne moom mooy solution bi gën man nag loolu dëgg-dëgg du nekk du benn solution boo xamante ni moo ma gënal ndaxte comme ni ma ko waxee rek xam nga soo bëggee indi diine ci vie tous les jours xale bi dafay nekk dara loo xamante ni euh, da il faut nga defal ko place ci biir semaine bi moo tax lu seen euh, lu seen emploi du temps doom euh, baree ay ay activité war nañ ci wàññi benn boo xamante pour pour bàyyi place pour njàngum diine ba xamante ni su vacance yi jub see itam ci même rythme boobu rek lay continuer ba nga nga xamante ni moom daal du du ñu du foog ni euh, vacances yi kese lay la war a jàng diineem ndaxte loolu tam dafay day dem ba dugg ci biir boppam que vacances ba vacances kese lay jàng diineem te sax du du du ko day day tax du ko jàpp tellement li balaa vacances yi jub si waat sax dina fàtte ni mu jàngoon ci vacances yi yële passé noo tax li gën na gën mooy vraiment nag ci semaine bi tou mu am benn bés wala ñaari bés yoo xamante ni dina ko consacré ci diineem ñaari waxtu benn waxtu moo gën que jël vacances yëpp jébal ko diine bi ba nga xamante ni sax moom li li mu li ngëneel yi vacances yi di war ko indil muy repos muy ay yeneen ay yeneen apprentissage sax du ko ci du ko ci am euh, par rapport ak ay ay moroomam. Euh, Mariem jërëjëf ci éclairage comme d'habitude di leen dig daje ci beneen émission euh, de chers auditeurs ñu yar suñu doom yi moo ñu war. merci beaucoup Marieme Aïda ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon li nga xam ne moo di sud éducation bu ko defee ñu wéy dem ak ki nga xam ne rek moo di Ndeye Khady Diop mu dalal ki nga xam ne moo di docteur Ousseynou Badiane mu ñëw nag ci li nga xam ne rek euh, moom la Covid 19 def ci li ñuy dippee programme élargi de vaccination.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 asalaamaaleykum mbokk déglukat yi xibaaru wérgu yaram tey jii dafay dalal docteur Ousseynou Badiane ñu ngi lay nuyu. yaa ngi leen di fay. coordonnateur programme élargi de vaccination docteur. ci jamono mbas mi ñu nekk nii ana lan jeexital jeexitalam ci wàllu ñàkkam xale yi. mbas mi boo koy gis dafa am jeexital ci li ñuy wax système de santé maanaam programme santé yépp da am jeexital maanaam impact fi mu nekk nii e vaccination ci programme bi la bokk. donc vaccination bi li ñu ci gis. mooy ne limu xale yi nga xam ne dañ leen waroon di ñàkk par day wàññeeku weer bu jot depuis que Covid bi commencé. li ko waral nag mooy ragal bi nga nañ ko feebar bi ba tax ñimeetuñu dem si structure sanitaire yi beneen bi mooy si commencement feebar bi confinement bi ñu waxoon rester chez vous ñu bari jàpp ne rester chez vous dem rendez-vous vaccination ji la bokk kan waru ñoo dem am ay rumeur aussi yoo xam ne ay wax yu bon ñu doon tuumaal ñàkk yi bari yenn seen xel xaw a jaxasoo ak structure sanitaire yi surcharge de travail bi nga xam ne liggéey bu ëpp bi nga xam ne nii si covid bi moom lañ ba tax tamit yenn programme yi temps bi nga xam ne moom lañ ci waroon a jox mënatuñ ko ko jox lañ doon ñàkk chaque weer depuis mois de mars ba léegi fi ñu toll nii. xayma ngeen ko ci ay lim. waaw xayma nañ ko ci ay lim donc ñàkku xale yi nga xam ne mooy ñàkk yi ñu juddu ba ñaari at ñàkk yooyu booy xool. weer bu jet téeméeri xale yoo waroon ñàkk. maanaam fukki yi ñëw. waaye bi gën a am impact mooy vaccin cancer du nga xam ne. li ci ëppoon ci école mais comme ñu bari aussi amuñu réflexe yóbbu seen xale yi ci hôpital pour ñu ñàkk leen. toog di xaar boo jëlee téeméer yi daan ñàkk presque juróom fukki kenn ñàkku leen donc boobu moo ci ëpp lu mu impacté mais yële moom entre fukki xale fukk ak juróom ci jot ñoom la ñuy perte par weer. soo ko dajalee dina mat vingt mille enfants maanaam ñaar fukki junni enfants depuis mois de mars ak joonu yàlla yi ñu toll yoo xam ne xale yi waroon a ñàkku lañ te jotuñu leen a ñàkk. docteur Ousseynou Badiane ñu ngi lay gërëm di la sant. merci man tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant. ma fàttali ne yow yaay coordonnateur programme élargi de vaccination PEV xibaaru wér gu yaram fi nañu koy ndax képpee ñu ngi leen di ñaanal bisu jàmm.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 Euh, on était ensemble depuis 6h30. Euh, Merci à toute l'équipe euh, de Sud Matin. Merci à toute la rédaction qui vous retrouve à 9h. Et juste après, vous aurez Nicolas Danekili. Merci à tous de nous avoir reçus. Merci beaucoup à Sosé qui a assuré la mise en onde. On va se dire bye bye avec euh, cette pensée du jour. Les membres d'une même famille ne rivalisent pas. ils s'entraident pour briller ensemble et de traduire en wolof juste que rek euh, ay mbokk dañuy jàppante jàppalante ngir ñu mën a jëmandoo kanam li ma ciy teg rek moo di mbokk alalu yàlla dañu koy jokk jërëjëfati à demain incha allah 6 trente